def toogal xomar la mu wax ko ko ba muy ñetti yoon mu ne ko buy xomar man maay àlliyu fekk góor ga am na juróom-ñeent fukki at àlliyu am fukki at ak juróom-ñaar su ko defee nag bam mu ko waxee loola xomar àlliyu jug yonent bi xam ne pexe jeex na te mbokkam ya ko jóge woon yëpp dee bay datu dee na mooy taawu xaaris xamsatu dee na fële ca uhud àlliyu la jege ci mbokk mu ko dese mu jël kaalaam nga làmbaay ga gannaaw bi mu jàppee di ñaan di ñaan di ñaan di ñaan ba kaala ga wadd ali aboubacar jël ko tegal ko ko ci kaw ne ko yàlla du tas sa yaakaar demal nga toog ci lay ñaan ba ne ko rabbi laa tasarni fardan wa anta xayru waarisin ndeysaanam nag bi mu paree nag aliw yonentu bi jël jaaseem jooju ñu tuddee zulfiqaar jox ko ko mu war a léewoo nag ak ak ak maanaam omar ibnu abdul wuddi yàggu dara ci xisa bu gudd rek maanaam aliw ray ko bañ ko rayee keroog la yonentu bi ne laa fatan illa aliyun wala sayfa illa zulfiqaar mu ne jàmbaar yëpp aliw ci man jaasi yëpp zulfiqaar moo ci man su ko defee nag bañ bañ ne rey nañu Omar ibnu Abdul Wuti nag yéeféer commencé nañoo jàq tiit nag antuñu seen sago nag ñu commencé nañoo am xam nañ ne am nañ échec ñu dem ba guddi rek yonent bi ne waaw kan mooy dem fa yéeféer ya nekk gëstul ma xibaar nuñ fanaanee tey Xusayfatum nu Yamaani ne ko maay dem mu départ rek jéegu ñaari jéegu dëppaat ne ko sedd bi kenn mënu ko traversé mënu maa dem dëkk bi dafa sedd foofa rek yonantu bi ne yow yàlla fegalal ma ko sedd bi moo waxal boppam ne mu mel ni ñeenti fuur lañ ma boole fuur bii ci ndeyjoor bi ci càmmooy bii ci kanam bii ci gannaaw yëpp ma ciy jaaru yëgatuma dara ba ñaq mu départ dem seeti gaaya dugg ci seen biir ak lëndëm gi gaay yi xàmmeewuñ ko Abu Sufyaan ku ñawala mu ne kenn ku ci nekk na jàpp ci loxo moromam bala ñoo saay-saay ruux maanaam raax ci suñ biir moom sax jàppaale nañ ko foog na ci ñoom la bokk ko mu ne keroog mënoon naa Abu Sufyaan ñu li na ci laa bu Sufyaan ne li ma ci xam daal ñun échec nañ gaa yi xor nañu ñëw ci xeex ak yonantu bi nekk kàmb lañ warale dëkk bi lañ bàyyi woon gannaaw ma ngay mi ngi yàquta lañ doon ut si amuñu ko damay ñibbi suba ma ñibbi wax loola tamit gaa yi ne boo demee ñun ñu ñibbi foofa nag maanaam la Xusayfatu ñib si war fasam wa ñëw di indil yonantu bi xibaar ba muy dugg ci biir rek nag sedd maanaam tàngoor wa bàyyi ko mu seddaat ba yonantu bee ko mujj muuru ko ci kaalaam gi parce que mission ba jeex na lam doon doj jeex na mujj sedd bay lox yonentu bi muur ko léegi nag ndeysaanam mu ñëw wax yonentu bi la gaa yi nekkee foofu la jibril ñëw ne ko mbir mi jeex na maa ngi jëm ca ñoom léegi bu ma demee damay jëri ngelaw li daane seen xayma ya daane seen kaw diir yi pënd bay poussière bi dugg seen bët yi su ko defee ma tàbbal ak ragal ci ñoom ñoom ñëpp danañ daw bay jibril dem ak ragal gaa yëpp ñëpp daw ci la Abu Sufyaan bind benn leetar yónnee ko yonentu bi ne ñëwoon nañ ngir faagaagal si la fekk la nga wëre la dëkk bi ak ay pax ba mun nañoo dugg waaye bisa ngi ci bis yi bis buñ dajee waatee danaa leen mosal lu raw la ma leen mosaleen ci Uhud yonent bi ko leetar ne ko da ngeen ñoo bëggoon a faagaagal yàlla bañ maa ngi lay yëgal ne bisa ngi ci bis yi bis bu ñëwee waxuma yéen waaye seen yàlla ya ngeen jaamu sax danaa ko toj ba mokkal ko mooy fat màkkata ba mu ñëwee la yonent bi waxoon moom def na ko waaye keroog ba xare booba jeexee la yonent bi ne Quraysatu jeexal nañ ndax liñ leen wan fi dootuñ ko wan dootuñ ko defati kenn waaye nag ci biir lii nii ñi nga xam ne dañoo xaritoxoon ak yonent bi ci Bani Quraysata façon nag moom kóllëre Malik di seen di seen maanaam kilifa dem firi kóllëre ga xooye ibnu Axtab moo ko campagne ba mu firi kóllëre ga yonent ba ndeke du baax ci ñoom mu dem firi kóllëre ga ànd ak gaa yele foog na mbir mi day day day yàqu ba xare bi jeexee ba yonent bi ñibbi war a aye nekk Umu Salmata ba muy demee teg ngànnaay yi rek umu salamata commencé ko raxasal bopp bi genn wàll ga la commencé raxas ba muy pare rek jibril ñu ko ne ko ay yéen da ngeen teg seen ngànnaay yi guerre bi jeex a guddi sama borom nee na nañ dem fale ca bani qurayta man la ma xebal maa ngi dem ni ji leen waxal sa gaay yi ñu dem ci la yonentu bi wax ne bilaal na nga xoote ne laa yusalliyanna al asra illa fi bani quraytata bu kenn jullee tàkku sanul ci bani quraytata saxaba yi déggee ko ñaari déggin ñëpp départ génn tàkkusaan jot ñenn ña ko déggee ne bëgg wax ne nañ teel a dem rek comme waxtu wi jot na mënuñ ko mën nañ julli door a door ñeen ña ne wax gi dafa leer bu kenn julli lu dul ba Bani Qurayza ta amatul taawil heggaguñ foofa duñ julli ñoom tamit noonu lañ def yéex julli benn xaaj ba ba ba ñu julli gexe passé na ci lañ door a julli tàkkusaan ci la yonent bi mer ne mala allahu butunahum naaran shaghaluna an salatil wusta ñi daal yàlla na yàlla feesal seen biir yeeg safara ñu soxlaal ba mënuñoo julli julli gi gën ci julli yi muy salatul wusta moo ta salatul wusta coow li bari na ci borom xam-xam yi boo demee misra dañ ne mooy salatu zuhri mooy julli tisbaar madinatul na ñu ne mooy salaatu subhi julleeg suba cheikh na tidiane moo mooy julleeg tàkkusaan moo tax mu ne yonentoo ko waxal boppam ne bañ ko bañ ko gawee ba gaa yi mënuñoo julli ca loola lii la wax na an salaatil wusta ta tàkkusaan la woon beneen bi tamit moo wax ne man faata faatahu salaatul asri fa ka annama wutira ahluhu wa maaluhu képp ku yéex a julli amu amuloo benn nganta yonentu bi mel yaa ngi mel ni kuñ boom ak sa njaboot ak sa xalal lépp mooy mooy sa sa jëf ja nga amoon màbbu na moo tax seex ba muy lim ñaar fukk yi maa bu jëf boole na ci yéex a julli tàkkusaan kon yow commerçant bi yow baykat bi yow safoor bi yow yow foo mën a nekk di ma déglu bu tàkkusaan jotee bàyyi li ngay def yëpp nga julli li ko mooy kat sa batterie bi day widd li nga amoon yëpp day yàqu tàkkusaan am na doole de foofa lay dem nag gaw waa Bani Qurayza ta ca tataja ñaar fukki fan ak juróom mënuñoo génn ñu mujj jàq tiit yenoon seen mag ma di Malick ne nañ jébbalu gaa yi ne ko ëpp naa def nañ joxe galak ñu ne ko ëpp naa def ca lañ nekk nag mujj gi yonent bi tànn loole neen lu ngeen bëgg ñu àtte ma àtte leen ñu ne ko sa àtte dafa diis Ali ibnu Abi Talib ñu ne ko dafa diis mu ne kon nag sax dub nu Muaz ñu ne ko kooku gërëm nañ ab àtteem mooy sangab Bani Awsu te seen xarit la woon ca la yonent bi ne xoowal leen ma ko mu ñëw ñu wooyu ko mu nekk ko ndaama la woon goo xam ne ku am yaram la war mbaam ba muy ñib si ba muy ñëw rek yonantu bi ne leen qumu li sayyidikum seen sang baa ngi jug seen sang baa ngi ñëw jug leen ngeen teral ko yonantoo njëkk a wax ne buñ buñ séenee kilifa nañ jug gaa yëpp jug jox ko ñaari loxo màggal ko su ko defee nag mu toog ba mu paree yonantu bi ne ko yow lañ tànn nga atte loo atte yàlla d'accord na ci mu ne ko lu ma atte mooy woy mu ne ko waaw li ma atte daal lu gàtt la mbooleem kuy xeex ki ñoom mata a xeex nañ ko rey kuy góor di jigéen nañ ko jàpp jaam seen alal yi ak seen tool yeeg gàtt yëpp na ko julli ñi jël yonent bi ne ko lii nga atte moom la yàlla àtte ci juróom-ñaareeli asamaan ci lañ commencé gas pax dugal leen ci àll yoo gaa ya ray leen ca lu mat juróom-ñaar téeméer ñi ray leen keroog ba nu xuray tata jël seen xale ya ak seen jigéen ña jàpp leen jaam yonent bi da leen jaayee ci marchandise am ngànnaay ñam ñam leen jaay ngànnaay lañ ko jox yu mu doole jullit ñi pour ñu xeex gaa ya doonu seen suuf ya doonu seen tool ya doonu seen gàtt ya ñi gën a dëkk ba abal yonent bi jàmm ndax yahud kenn mënta dëkk ak ñoom kenn mënta dëkk ak ñoom su ko defee nag coono yooya nag xare ba jeex nag coow la jeex nag ba nu xoree tata gàddaay ba nu nadir dem kenn nekkatu fa yonentu bi jël suuf yooya nag jox ko muhaajirina yi ne waa lansaar du ngeen ci am de suuf yëpp muhaajirina yi laa koy jox dañoo bàyyi seen kër ya ca Makka gaa ya jël nañ ko kon nag ñoom tamit dañuy jël suuf gaa yi nekk fii jël suuf yooyu gaa yi ne ko d'accord nañ ci ni nga attee loolu lépp ma wax nag mooy xisa yi mooy xisa bi xaswatul Uhud làmboo ak xaswatu bani bani Quraysata ñoom ñaar la boole mi ngi xew juróomi at ca gàddaay ga ci la xase bi ci la xare bi xew tolloog euh, weer wu ñu tuddee wori muy diggi ci la maanaam wori kon euh, muy sawaal ci weer woowu ci la xare bi xew ca juróomi at ca gàddaay ga moom lay wax si ni nag moo tax mu ne yaa ayyuhal ladina ee yéen nga xam ne amanoo gëm nañu uzkuru fàttaliku leen ni'matallahi xéewal ak yàlla alaykum ci yéen xéewal gaay lan mu ne is jaatkum waxtu ba xam ne dikkal na leen junnoodun ay soldaar te mooy abu sufyaan ak mbooloo xam ma xuyay ibnu axtab ak mbooloo xam ma fa arsalnaa hebal nañ alayhim ci ñoom réexan ngelaw wa junoodan ak i soldaar lam yooy yooyu gisuloon leen te mooy malaaka ya leen ni xeex la wa kaana nekk na laahu yàlla basiran di aji gis bi maa taxam li nga xam yéen a koy jëf de ni ngeen sonnee ci gas xandax yàlla gis na ko kon du leen bàyyi ni leen neenal kenn du xam ci yéen ndam moo tax mu ne kon nag li ngeen def yàlla gis na ko moo tax nag mu commencé di leeral xare ba ci ni mu demee moo tax mu ne is jaakum waxtu wa nga xam ne dikkal na leen moom Abu Sufyaan ak mbooloo xam ma min fawqikum bàyyeekoo ki seen kaw kaw ga mooy ña bàyyeekoon ca wàllu mashriq ca kaw xuur wa muy banu xatafaan wa min asfala ak fa gën a suufee te ñooy banu qurayshin Abu Sufyaan jiite leen ñi bàyyi ko fa gën a suufe ca xuur wa ca Makka minkum ci yéen wa isaaqati ba nga xamee ne jeng na al absaaru gis ya ni ñaa nga jàq buqi seen bët ya ba gisatuñu wa balaxati jot na al qulubu xol ya xanaa jëra ca potox ya jamoo an jëratin gaa yaa nga jàq ba seen maanaam tension ya ña ngay monte wata hunuuna yéen a ngi njort billaahi ci yàlla na ay njort yu wuutee ñi ne dana baax de ñu dëggu ñi ne du baax naa hunaalika foofale ubbutuli ya na toof na moom ñu ne way gëm ña mën a xàmmee ñu dëggu ak ñu dëgguwut wasul si loo rëngi-rëngaleef na leen silsaalan ak rëngi-rëngi shadidan gu tar bi lii xewee nag armée bi commencé ñi bàyyee ko ca kaw muy banu xatafaan ñi bàyyi ko ci suuf di ba banu qurayshin mu def lu ñu tuddee tibaax ci xam-xamu balaaxa def tamit lu ñu tuddee mu balaaxa xol moom bu heggee ci potox rek borom dee xol man ta yegg foofa waaye dafa bëgg a wax ne gaa yaa nga jàq seen bët yëpp buqeeku ba seen tension yaa ngay yéeg maanaam antuñoo seen sago ñëpp tiit ne dana jag ci ñu dëggu dëgguwul ñu du jag kenn mënu ci dara du baax lii kay ñun tey fii la suñu yem fii la suñ suñ suñ fan wi yem nga moom lay wax ci ni li naafiq ya wax moo tax mu ne wa fàttalikul is yaqulu bay wax al munaafiquuna naafiq ya wala fii naag ña nga xam ne fii qulubihim aji nekk la seen xol yi maradun lompañu pas-pas ñu ne maa waadanaa dëxalut ñu laahu yàlla wa sooloo ak yonantoom bi illa xurura ndere ay xor mu ayti bub nu xusayri moo waxoon loola wa id qaalat ba waxee taayifatun kuréel minhum ca ñoom ne yaa ahla yasriba yéen waa yasriba madinatul munawara ba fa yonentu ba gàddaay gu toon yasriba la tuddoon yasriba turu benn góor la woon gu bokk ci ba ni bani amaliqa moo moo sancoon dëkk ba wàcc fa ñu tuddee ko ko waaye baatab yasrib nag alam la li ko toree soppeeku alam la maanaam ak mandaxam fial ndax yasrib ak yadrib dañoo niroo tuddee nañ ko yasrib nag baat bi mu ngi bàyyi ko ci tasrib tasrib bi maanaam mooy àllawmu mooy yedd moom nga dégg yusufa di wax ci alquran yàlla di ko ne laa tasriba aleykumul yawma yaxfirullahu lakum waaye keroog ba ko yonantu bi dëkkee la ko tuddee taabatu wala taybatu wala madinatu yëpp ay dëkk la tuddee nañ ko ko ngir teey ak dëkk ga teeyu eer ba ak suusa mu ne kon yaa ahla yasriba xée yéen waa yasriba laa muqaama déet sax lakum di leen ñaal farji'u na ngeen dellu ci seen dëkkuwaay ya bu la neexee nga ne laa muqaama déet ak sax ci diine yonantu bi lakum di leen ñaal dañ koy faagaagal farji'u dellu leen ca diine ja ngeen nekkoon ngeen murtat wa yastaasinu dana diisu fariqun kuréel minhum ca ñoom nabee yonantu ba te mooy banu xaarisata ñëw di tàggu yonantu bi na ña ngay wax ne inna buyutanaa naka suñ néeg yi awratun jëmmi awra la amut sécurité amul tata yu ko wër te dafa dend ak noon ya yàlla ne dañuy kàcci wa maa hiya déet ñoom néeg ya bi awratin muy jëmmi awra dañoo ragal rek dañoo bëgg a daw su ko defee kon nag dañuy dëgg luñ bëgg daal li li wér te xóor in yuridun déet ñu ngi namm illa firaara lul daw dañoo bëgg a daw rek ñoom nag daw mooy seen baax xareb Uhud dañoo dawoon waaye mu ne nag walaw du xilat doonte tabaloof na kuréel ya alayhim ci ñoom min aqtaariha ki seen goxu néeg ya su ma su ilo topp laajeef leen al fitnat ak murtad la atawhaa danañ dikkal murtad ga moo leen gënal wallahi bu ahsaab ya wàccoon ki seen néeg ya ne leen murtad leen bàyyi yonantu bi tamit banu harisata murtad dund rek lañ bëgg waaye bu buñ murtatoon tamit wa maa talabasuu duñ sax fiihaa ca dëkk ba illaa yasiran léegi tey ñu dee ndax dund àdduna yàggut te ñu ngi nii wala qad kaanoo wallaahi nekkoon nañ ahadoo dikkoon lanteeg laaha yàlla min qablu ca njëkk ne laa yu walu na ñun duñ wanale duñ dëddale adbaara gannaaw yi ñoo waxoon ne duñ daw te wakaana nekk na ahdullahi dëlab yàlla masulan di ñu laaj lu tax ñi teen ñu matal ko nag yàlla di leen wax ne qul wax leen ne lan yanfaakum du jariñ leen alfiraaru daw in faratum dem daw ngeen min a mawti ci dee awil xatli wala ray ku dee deewut ci jaasi rek dee ci geneen dégg faras daq wax na ko man lam yamut bi sayfin maata bi xayrihi te xaalafatil asbaabu waaye wal mawtu waaxidu mu ne nag kon bu ngeen deewut dee ca lee taxalliw nee na dee yëpp deewu jaas yi ñi rey la moo ci gën a sedd mu ne sukkuraat moo gën a métti téeméeri dëbbi jaas yu dal ci sa kaw moo tax mu ne moom dee ak jaas yi la gën a tànn moo tax mu ne wa isan su fekkoo ne daw ngeen laatu mattaxuuna du ngeen sax di dundaat illaa xala lu lu néew rek ngeen dee qul wax leen ne man sa lazi anakan kaaka yaasimukum moo leen ni musal minallaahi ci mbugalam yàlla in araada bu namee bikum ci yéen su an ñaawteef kenn aw araada wala mu namu bikum ci yéen rahmatan yërmande kenn mënu koo tere ba du hegsi walaa yajiduuna fekkatuñ lahum ñeex leen min doon laay ku dul yàlla wali yeen kenn ku leen mën a méngoo seen i mbir wala nasiran du kenn kenn ku leen mën a jañal mbugalam yàlla mi kon bu ngeen dawee dee mënu leen a daw yàlla kon bu ngeen xeboo toog ñoom nag asihatan mbir mu ñu nekk wa dégg nga mu ne qad ya'lamu xam na laahu yàlla beneen kuréel ga mooy abdullahi ibnu ubay almuawiqina ñay way gàllankoor min kum ci yéen wal qaa'ilina ak ak way wax ña li ixwaanihim seen ñeel mbokk ya ne haluma kaay leen ilay naa ki ñun wala yaatu na duñ dikkal alba sa xare illa xal la du néew bu ñu présenté woo bañ gis leen rek ñu ngistal ñi bihaat kooku mooy Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul mu ne xam naa ñi nga xam ne duñ def lu baax te ku bëgg def lu baax ñu fomm la te bëri lool mooy daanee ci aaya ji mu ne ashihatan mbir mu ñu nekk way nay aleykum ci yéen dañoo nay seen kartan duñ leen ci dimbale dañoo nay ki seen xalal duñ leen ci dimbale fa ida jaa bu dikkee alxawfu ragal raaytuhum nga gis leen yanzuru na ngay xool ilayka jëm ci yow te dooru mbir moom dana wëndeelu ayunoom seen bët ya kallati ba mel ni koo xam ne yuxsa def na muur ko alay ci ma minal mawti ci dee fa ida sahaba bu demee alxawfu ragal sa laqookum ñi bàcc la bi alsinatin ciy làmmeñ xidaadin yu ñaw yàq sa der bi comme xaalis bi teew na achihatan ñi nekk way nay alal xayri ci xalal ulaayka yooye gaay lam yuminoo gëmuñu de moo waral fa ahbata sippi na laaw yàlla amaalum seen jëf yi ndax ngis tala ko lal wa kaana naka jekk zalika sippi googa yasiran lu jàppandi la ala laay ci yàlla yaxsabuna ña ngay njortu axsaaba kuréel ya lam yadhabu foog ne duñ dem te fekk danañ dem wa in yaati bu dikkee axsaabu kuréel yi yow a duuna danañu ngéeju buñ ñëwaatoon danañu ngéeju ne law annahum doonte woon naka ñoom baa duuna dañoo dëkkee woon àll fil arabi ci arabi àll ya yasaluna ñuy laaj an an bàyyikum seen i solo la dégg nga walaw bu buñ nekkoon fiikim ci ñoom tamit fiikum ci yéen di xeex ak yéen tamit dañ leen yokkal li mee xare maa qaatalu duñ xeex illa qalil ndax na gis rek la laqad kaan nekk na lakum ñeex leen fi rasulillahi ci yonent bi uswatun royteef xasanan gu rafet li man ñeel képp koo xame kaan nekk na yarjoo di ragal laaha yàlla jox na ko kàddoom mu dem ci ba bani xatafaan tulayxatu mooy seen njiit jox na ko kàddoom mu dem ci banu asad oyeynatu mooy seen njiit jox na ko kàddoom mu dem ci banu amir amir nu tufaylu mooy seen njiit jox na ko kàddoom su ko defee nag mu yii am ci ay mushrikuuna mu boole kook ñam am ci ay ay yahud ñoom ñoo ñëpp ñu dajee joxe rendez-vous ci madinatul munawara pour faagaagal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax armée bi ñu am mbooloo mi yonentu mënu koo dékku ndax booba ñoom seen armée bi rek bañ ko boolee mat nañ fukki junney nit ak ñaar seen gëlëm ya rek ñoom ba bani Quraysh la waxuma ñeneen ña Quraysh rek seen gëlëm ya junney gëlëm la ak juróomi téeméer seen fas ya rek ñetti téeméeri fas la yonentu beeg mbooloo xam mi yëpp ñetti junne rek lañ te téeméeri fas lañ am lii xam nga ñeexu ñoo dékku bi lii xewee nag ba nii xusaata ñoo njëkk a yëg déey bi te ñoom dañoo euh, faroo nag yonantu bi ñoom ñi def yoon yónni ay nit ñi dem fekk yonantu bi ci Madina ne ko sa gaa yi nas nañ pexe duma yi ngi leen duma badar moo leen métti ba tax na daal dañoo bëgg a waat seen xeex bi ñu ngi ñaan daal revanche yonantu bi ne waa baax na ñoom nag mbooloo miñ nar a indi yow mënoo leen dékku da boo yeboo nga def pexe yonantu bi kenn moom li mu yilif ñëpp bu ko probalee mu sax na indil da koy teg ci taabul bi ñu waxtaane ko moo saxabaam yi ne leen mbir xew na de na yëpp ak yahood yi ci kaw suuf ñëw nañ pour dal ci suñ kaw dama ciy diisoo ak yéen nag lan mooy seen xalaat moo tax yàlla taggalee na wa amruhum shura baynahum yàlla tagg ko ne ko tamit digal ko ne ko wa shawirhum fil amri fa ida azamta fa tawakkal ala allah foofa rek benn waay yëkkati loxo ne am naa ci xalaat noo tudd mu ne maay salmaanul farisiyu perse laa bàyyee ko luy sa xalaat mu ne ko mbooloo mii war a ñëw dal ci kaw suñ kaw attanuñ leen fukki junne ñi ak ñaar naka lañu ñu mën a xeex ñetti junne ni naka la mën a xeex ñoom xalaat bi ma ci am ñun waa Faris bu ñu armee boo xam ne dañoo dañoo song te attanuñu bëgg a dal suñ kaw nuñ daan def dañuy génn dëkk bi rek gas ba mu wër ay pax su ko defee ñu dugg ci biir waxuma ci biir pax yi waaye dañu nekk ci biir pax yi wër ñu su boobaa nag arab yi fas la ñuy xeexe fas mënul jéggi kàmb da ñëw rek taxaw bu ñu sonnee dañ ñibbi ñu nekkaat ci jàmm yonent bi ne ko sa xelaat rafet su ko defee kon xelaat boobu ko ko joxe ndox doxandéem la di salmaanul farisi koo xam ne baayam jàmmukatu safara la woon ba bokkoon ci ñuy xambu safara yi mu judd ca baayam di ko jàngal loola benn bis mu génn gis maanaam mbokki yahood yi muy siif yi am benn cérémonie bu mag seen kilifa ga di labbe ba di faj ku feebar mu faj la nit ñay wér ke saasa mu jis loola ne ñi seen diine ji moo gën a nekk dëgg suñ diine ji tubbi bàyyi diine bàyyam fekk ñooña ca lay nekk ca lay nekk di liggéeyal labbe ba ba làbbe ba gërëm ko mu ne ko dama lay laaj comme yaa ngi màgget ma lay laaj ndax diine ji yàlla euh, yónni woon yonentu yàlla Ibrahima ndax des na ku ñëw war koo beesalaat mu ne ko laaj ga lu kenn mosta laaj waaye dinaa la ko wax nag ngir sa pas-pas am na kuy ñëw ci yàlla war koo yónni ca diine jooja Muhammad lay tudd sallallahu alayhi wa sallam même jamono ji sax war koo yónni yàggatut war nañ koo yónni mu ne ko fu muy dëkk mu ne ko kooku dëkk ba muy dëkk day nekk dëkk bu bëri tàndarma léegi nag boo demee foofa dëkk bi bëri tàndarma lool da maanaam foofa lay mooy nekk kër a gàddaayam gi mu ne ko nu may xamee ne moom la yàlla yónni mu ne ko boo ko joxee addiya dana ko lekk boo ko joxee sarax du ko lekk boo demee ci gannaawam gi xuut-xuutam ba gam càmmooy ma am na tampoo ak nubbuwatu ay kawar wër ko matul ñaar fukk ñu bind ca siriya muhammad fa innaka mansurun laa ilaha laa nag moo ci jiitu loolu door a ñëw moom tamit nag mu jël ay nit fay leen ne damaa jëm pële ci suufu xijaas ñooñu yóbbu ko ay arab lañ ba ca suufu arab yi ca digg ca digg suuf ya rek ñu jaay ko ñu jaay ko benn waay te lekk xaalisam bi jaale di ko jaay ko jaam li métti na kañ ko jaay nag heureusement fi mu dëkk ak Madinatu Munawwara sorewut moom mu dem foofa di liggéey soppeeku jaam di liggéey waaye ba mu gisee suusa ak gis tàndarma ya mu ne fi ma sama waa ji wanoon daal ak fii sorewut maa maa foone fii daal du ko sori ndeke yoon nañ yonantu bi lam nekk màkka lépp fukki at ak ñett moom yëgu ci dara ma nga soxlawoo liggéeyam ak njaamam gi rek ba benn bis mu taxaw mu toog ci kaw mu yëg ci kaw gabu garabu tàndarma gi di witt sangam bi nekk ci roon garab gi xaar euh, sangam bi menn mbokkam ñëw di ko seet si mooy ñiy dem ca dëkk ba ñooy xam li xew ci dëkk bi li ci dëkk bi ngi ci dëkk bi rek ñoo ko xam ci noonu rek waaje ñëw ne ko hee tey daal li xew ci dëkk bi kenn mësu koo dégg man maa ngi bàyyeekoo Madina léegi mais daal euh, banu xay la ñoo féex maa ngi leen fekk ñu ngay tertu benn waaye dur ay tabala ñu ne ab yonantoob yàlla la ba ko Salman déggee rek lan lox ba daanu ci garab gi baatab yonantu gi mu dégg rek mu tax mu daanu moom nga dégg bu sayru yi di wax ne afala na salmaana lamma an arathu min zikrihi l urwa u waaye du ngeen gàntal salman nga xam ne turu bi la dégg rek lox ba daanu sukk ci kanam sang bi ne ko waaw looy wax waxal ma dégg yow mu ne ko demal ci sa liggéey ba mu paree nag moom ci la sàkk tàndarma laaj fu yonantu bi nekk ñi laaj mu dem ma dina laaj ko ñu wax ko fa mu nekk kër abi ayuba mu fekk gaa yaa ngi ko war mu ne lii de sarax la yonantu bi jox gaa yi ñu lekk lekkut ci ëllëg ca mu indiwaat dara ne lii de addiya la yonantu bi lekk door a jox gaa yi ñu lekk mu ne am naa ñaari preuve benn moom ma dese toog rek fu yonantu bi toogee rek mu nekk ca gannaawam fu yonantu bi toog rek mu nekk ci gannaawam di xaar léegi tey yonantu bi defaraat mbubbam mu mën a xool la ca gannaaw ga jibril la ñëw nag déey ko ne ko waa ji nekk sa gannaaw ñetti preuve moo ko tere moo ko tere woon a dugg ci lislaam ñaar yëpp am na ko benn bi rek a ci des foofa yonent bi defar mbubbam rek mu xool tampon bu ba rek fóon ko commencé jooy wax fi mu jaar ak ni mu sonnee ba pare rek daal di tuub ci yonent bi tudd ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah delluwaat ca liggéeyam ba badar ñëw jaam la fekkee fekkeewut xare badar uxud ñëw fekkee fekkeewut xare uxud même ñu ne xalaat bi sax da koo joxe rek ci xandax waaye fekkeewut xare ba ngir léegi jaam la mu jigi nag bi ko xare yu bëri faatee loola métti mu ñëw ci yonantu bi ne ko damaa bëgg nga ñaanal ma ma nekk gor ba xare boo wooteeti ma féetee ma ma bokk ci nekk sa gannaaw di la jàppale yonantu bi ne ko demal ci sa sang nga wax ko ne ko damaa bëgg jotoo lu mu la wax rek nga ñëw wax ma ko mu dem sang ba soxor lool boo demee ci sa sharhu Hamziya bi Seex na Tijaan yi liggéey mu ne maanaam sang ba ne ko ñett ñeenti té ñeenti téeméeri taatu tàndarma nga may jëmbatal ba mu ñor ak ñeent fukki uqiya ci wurus loola bu matee nga teg ko sama kanam rek nga nekk gor xam nga loolu yombut te tàndarma boo ko jëmbatee lii tax nga lekk ca meññant moom mooy gudd fan man nga koo jëmbat juróom-ñaari at juróom-ñetti at muy door di ñor fukki at waaye noona rek mu ñëw wax ko yonantu bi yonantu bi ne maay sàkku njëmbatu tàndarma mi ngi mel ni nga ne may sàkku njëmbatu euh, maanaam euh, euh, dugub ji gaa yi saxaaba yi lañ am ci njëmbat yëpp ñu andi ko mu ne gas leen waaye bu kenn suul gaa yëpp gas di tubbi yonent bi suul yëpp moo ko moo ko jëmbat ca loxam ba mooy benn tàndarma yàlla dogal ba mu ko jëmbatee ca loxol boppam ba tàndarma ja màgg ca at ma meññ ca at ma maanaam tontóor ca at ma meññ ca at ma ñor ca at ma ñu wittu ko ca at ma salmaan gore ca at ma kenn du sayduna muhammad mu des nag wurus wa ñeent fukki uqiye ta am yonent bi na maay sàkku lu waaye am ci wurus na ma andil lu mu tuuti tuuti xeebu ma gaa ya dagale amuñ dara liñ am lépp mu ngi tolloog nen nen rek nenu ganaar lay toll yonent bi ne ko demal sa waagi ne ko mu peese ñeen fukki kilo ya li ci des nga andil ma ko lu matul juróomi garaam ñu war caa génnee ñeen fukki kilo kon kenn du yonent bi moo mën a fekk lu tuuti mu génne ci lu bëri comme lu bëri mën naa génnee lu tuuti lu tuuti war naa mën a génnee lu bëri dañoo xamul secret ba rek waaye ba ko yonent bi joxee mu yób yóbbul ko sang ba sang bay peese muy daanu muy peese muy daanu ba ñeen fukki uqiye yi jeex te lam ko joxoon ca kem nen ba jeexul dara manqué wut ca moom la bu sayru ne wa wafa qadra daynin qadra qadra baydatin min nudaarin dayna salmaana xiina xaanal wafa u kon lu toll ni nen rek la jël peese ca lépp mat bu ko defee mu indil ko salmaan gore ca ab ma kii mooy salmaan mi joxe xalaat bi léegi nag jox na leen xalaat bi gars yi commencé nañ xëccoo muhaajiru yu ne ne salmaan ci ñun la bokk li li ko fi indi moo ñu fi indi rawale suñ diine moo ñu fi indi moom bi tamit xeeñtu diine ko fi indi kon ci ñun la bokk waa lansaar ne déedéet ci ñun la bokk bu ngeen fekk madina rek ci ñun la bokk te madina ngeen ko fekk coow la bëri yonentu bi àtte leen xeeñ leen ko ñoom ñaar jox ko boppam ne salman min naa ahlal bayti salman mi man la bokk moo tax ji nga pas-pas lu mënta maye amut xoolal salman fa mu dëkk na mu soree waaye xoolal dëggoom gi ak pas-pasam gi tey tax na tey yàlla yonentu bi boole ko ci askanam wa ba ne salman min naa ahlal bayti léegi nag yonentu bi commencé leen sax pour ñu war a gas wër fi ñu war a nekk mi ngi leen sa fukki nit ñu nekk dañoo war a gas ñeen fukki meetar fukki nit ñu ne ñeen fukki meetar dana métti nag ñeen fukki meetar yi da ko gas ci yaatuwaay ñeen fukki meetar yi ci gudd ñaay xóotaay ba nekk fukki meetar léegi nag Salmaan nag Noomaan ñoo bokkoon benn benn place bu ñuy gas moom ak gaa yooyu ñu nekk ca nekk ca nekk ca ba doj benn ba jot benn doj wu mag wu weex ñu dóor dóor ba seen pikk yaa ngay damm te mënuñoo traversé doj wa te fi leen yonentu bi rëddal bëgguñ koo bëgguñ koo teggi Salmaan ñëw ci yonent bi ne ko fii nga ñu rëddal ñu koy gas dajee nañu aw doj woo xam ne dafa dëgër suñu pikk yëpp mi ngi damm te bëgguñoo teggi yoon wi bu doon jamono ji day wax ne waaye nañ ko xaw a teggi rek moom amul problème waaye ñoom comme yonentoo rëdd rek duñ ko teggi ñu nekk fa di gas ba sonn mu ñëw ci yonent bi wax ko ko fekk jamono joogi jamono yi xiif la ñu saxaba yi sonn nañ lool lañ jëlee woon ca xare Badar jeex na te dara amaatagul presque léegi nag ndeysaanam fekk na bis booba sax ca xare ba yonentu bi ñetti fan lekkut ñetti fan yëpp day xoor bu xoor jotee ba dog jot du am lu mu dogee rek mu continuer léeg léeg léegi ba yi di xoor duñu xam luñ lekk ñu ko cay bugga a toppandoor mu ne maag yéen bokkuñu ndax man abitu inda rabbi yut'imu nii wa yasqini danaay fanaan ci sama borom mu may leexal di ma jox ndox may naan loolu mooy lan damay gént yi lekk te su ma yeewoo rek xiif ba dem damay gént yi naan su ma yeewoo rek mar ma dem ku dul nag boo xii boo géntee xiif gën a mar rek wala nga gént xiif gën a xiif rek gént mar gën a mar rek yàlla boo gént nag yore xaalis gént naan dama damay damay compte ay billets bés boo xeewoo rek am problème dal na waaju siise siise ba ndeysaan dafa gént di dox ca mbedd Amérique yi ak Italie saanam gént ga neex mu tëdd yi nelaw rek nelaw yooyu yóbbu ko ba mu biddanti dem ba 11h yeewut yaay ji yee ko ne ko Modou Cissé naaj na jugal nga ndékki bok mu ne ko mère rëfale nga ma de xam naa ñu refu ne la duggagoo avion xaw na doy waar kon gént léegi-léegi day xaw a doy waar léegi nag euh, salmaan ñi gas ba mu wax loola yonentu bi ñëw jàpp njàppam lu tooy xeeb dëkk ndox ma sotti ko ca doj wa jël pikk ba dóor ñetteelu xaaj ba toj ay ferñeent génn ba ubale diggante ñaari ma madina mu ne gis ngeen li ma gisam gaa yi ko gis nañ ko kay ay melxati ci ferñeent mu dóoraat ñaari xaaj ya jeex mu def ferñeent mu ne ndax gis ngeen li ma gis ñu ne ko gis nañ ko kay mu dóoraat ñetteel yoon ba rek doj wa toj ba mu paree nag mu ne leen gis ngeen li ma gisam ñu ne ko gis nañ ko kay mu ne bi ma dóoree dóor bu njëkk yàlla wan na ma état ya nekk xiira yàlla wan na ma ne jox na ma caabi sama diina dana fa yegg ba ma dóoraatee wan na ma état ya nekk Qaysar nee na sama diina dana fa dox na jox na ma caabi ya ba ma dóoraatee jox na ma état wan na ma état nekk Sanaa wu Yaman nee na sama diina dana fa yegg wan na jox na ma caabiya waaye ba ma leen xoolee nag étage ya mi ngi mel ni bëñi xaj noonu la ko waxee ñett tax mu wax loola ka an yaa kilaab weexaay baa tax muy peinture bu weex ba ni mu tollooyee nekk ay cité ñu lutise ko mu tolloog ba ñu ba ñu ba ñu bawkat yi ni ñu tollooyee xeebu gim xeebu ci ñàkk solo moo tax mu niirale koog ab bawkat ci ab xaj wala ne àdduna amul solo boo fi xamee étage te jubóoxaloog yàlla tamit moo xaj rek a xem su ko defee moo tax kon mu niirale loola ak loola ba mu waxee li nag mu naafiqu ne commencé di ko ree ak musrikuun ne waaye waa joo xam ne ragal a tax ak gaayam yi ñuy gas pax pour bëgg bëgg caa dugg mu wër leen bu toogee fi sama dina dana hegg sanaa woog dangeen ngeen ko gëmam keroog la aaya jële wàcci qul illahuma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tansiul mulka mi man tasha te suratu al imran ci la yàlla wàcce di wàccee loola di dëgëral loola léegi nag gas nañ ko ba mu wër ñee ne gas ga fukki fan ak juróom ñeen na nga ne juróomi fan ñeen na nga ne semaine lu ci mun di am pare na yonentu bi dugg na ca pax ma wër na leen araab yi départ nañ xamuñ ci dara mushrikuuna yaak waa banu nadir yëpp départ dawal seen i gëléem seen i fas ba yegg si rek fekk maanaam kambu gaa nga wër pax maa ngi wër yonent bi abi sufyaan ne hee lii du pexeeb arab de arab xamul lii nekk pexe mi ko jox yonent bi ñu ne da cee am ay nit ki joxe ki joxe maanaam pexe mi waa Faris la waa Perse la moo tax mu ne ko lii duut pexem arab fekk loolu ki njëkk a joxe pexe loolu ci waa Faris yi mooy buur bi jamono xante na yonentu yàlla Muusa moo daan def bu amee ay noon yu mënta dékku rek gas mu wër rek nga dugg ca digg ba gaa yi duñ ko mën a jéggi su ko defee na gaa yi ñëw campé fale ca wetu Uhud mënuñoo dugg ci biir ñi mujj di sànni wante ay fett léegi-léegi am yu am rëcc yu rëcc dal ci saxaaba yi yu am yu rëcc dal ci ñoom di sànni wante ay xeer foofu la ñuy def lu mat ñaar fukki fan ak nangam foofu la nekk sonn mbir ma métti ba daal ñi ñi na traversé pax mi mooy ku ñu tuddee nawfal nawfal da ko doon jéem a jéggi ak fasam yi di ko sote rek fas wi daanu moom ci kàmb wi loos wa damm Aliyu fekk ko fa jekkali ko ray ko boo ko defee nag xéeféer yi yónnee bi fukki junney dërëm ne ko dañoo bëgg nga jaay ñu koor bi ñu dañ dañu dañoo bëgg a jot koor bi yonantu bi ne leen koor ab xéeféer awma ci soxla jël leen dee ju bon ji ak jëmu ju bon ji ngeen yóbbu ko beneen bi ki doon ki jéggi woon xikramatu jéggi na hubayratu jéggi na waaye ki jéggi ànd ak fasam nag mooy Omar ibnu Abdul Wuddi kooku yaakaar naa suñu baay Ibou Sakho daana ko nettali ci nettali wu siiw woo xam ne man caa jaar dana jafe lu ci mun di am dawal na fas ba fekk yonantu bi toog mun ne ko yéen a wax ne ñaar ñaari julit wala benn julit mooy xeex ak ñaari xéeféer man waxuma ñaar na kenn rek génn yéen a wax ne ku dee ci yéen dem aljana ku dee ci ñun dem safara na kenn génn léegi yóbbu ma safara mbaam ma yóbbu ko aljana yàkkamti naa ko léegi dawal fas الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي الرحمه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 di delsiwaat ci kartanal yàlla fas yéene ànd ak yéen ci seen tafsirul quran bi ngeen baaxoo am bët bu set rekk ci waxtu yi ba léegi nag ñu ngi càmbar daaraay démb yi nga xam ne ñoo jur daaraay tay yi foofu la eh, rajo télévision bu wal fajiri waaxu ba dem ci daaraay alxaaji tafsir Abdoulaye Saw tabaarakallaahu mi nekk golf sit jëlee fa benn xale bu ñuy tuddee Babacar Bey mu war ñoo jàngal aayaat yi nga xam ne moom la ñuy war a firi insha allahu Babacar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى سر إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة inna allaha samiun basir est tabarakallahu Babacar bi yal na yàlla barkeel la ni mu barkeelee téeram bii njàng mi neex na aw na yoon te at yi tuuti na yàlla wàcce barkeeb alquran ci sa sëriñ daara oustaz Aliou saw waaye wàcce barkeb alquran ji nga jàng nag ci ñun ñi teew fii ci Walfadjri gi ak ci mbooleem jullit ñi fuñ mun di nekk ci àdduna bi oustaz Hassan xam naa mu jox ko kadoom bi rek incha allahu ayaat yi tabaarakallahu Babacar Bey doon ñu jàngal yàlla mi ngi ci ñaax nit ci xéewal yu rëy yi nga xam ne nii defal na ko ko xéewal yu rëy yi asamaan ëmb ko te nit tax koo jóg ak xéewal yu rëy yi suuf ëmb ko te nit tax koo jóg li suuf ëmb bari lool géej gi bokk ci ak or ba mu ëmb jamaa ba waaye li suuf ëmb gàncax gi bokk ci ak mbelleeg li ñu ëmb ci ci ci or ci jamaa ci yeneen xeeti matières yi nga xam ne nit da koy soxla te loola lépp nit a ko tax a jóg li asamaan ci ëmb ci xeeti xéewal ak ci wërsëg lii ci wàllu jant bi lii ci wàllu weer wi lii ci wàllu biddiw yi lii ci wàllu niir yi nga xam ne moo lay indil ndox te fu ndox am rek wërsëg am fa Omar dafa daan wax ne wa haythu yujadul maa'u yujadul maalu lii lépp nag yàlla jox ko nit ba ne daal sa mbërtal naa samay xéewal ci yow nit ki xéewal yu feeñ yu sa bët yi mën a jàkkaarloo muy am gi nga am rek di nit xéewal la yàlla may lay doom may lay soxna may la alal may la loo mën a fajee sa soxla may la wér may la jàmm may la sécurité yooyu yëpp xéewal la gu la jege te doo ko gis xéewal gu na gi gëm yàlla moo ci ëpp doole bëgg sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy bépp xéewal gu bët mën ta tege rek loola mooy xéewal ak baatin xéewal goo xam ne bët mën na caa tege mooy xéewal ak zahir ku mu ci ñaar yi nag boo ko doon jéem a lim du jeex wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha léegi nag xéewal yooyu la yàllay tudd tuuti euh, ànd ak li xéewal yi bëri yëpp nag am na ñuy taxaw di daggi santeeg yàlla te amuñu benn téere amuñu benn xam-xam euh, di wax lu ñaaw jëmee ko ci yàlla di ko wax ci yontu moom lay wax si nii moo tax mu ne alam taraw xanaa yëggul seen xam ne anna laaha naka yàlla saxara tàggat na lakum ñeel leen maa fi samawaati li nekk ci juróom-ñaari asamaan wa maa fil ardi ak lépp lu nekk ci juróom-ñaari suuf li ñu ëmb ci xéewal wa asbaxa lëwal na aleykum ci yéen niamahu xéewalam yi zahiratan mbir mu muy aji feeñ ba seen bët ya mën a jàkkaarlook moom wa baatinatan ak muy aji nëbbu ànd ak xéewal yu rëy li muy bëri bëri am na ci lenn ci xeetu nit ñi mel ni nadir ñu ngi daggi santeeg yonentu bi ci wàllu yàlla te amuñu téere amuñu benn leer gu leen di leeral ca la ñuy wax dañ ko teg rek ci seen bakkan moo tax mu tofal ke ne wa mina naasi am na ci lenn ci nit ñi man koo xam ne yu jaadilu dañoo dagg sante fillaahi ci mbiram yàlla bi xayri ilmin ci lu duhut benn xam-xam wala hudan du caakeen benn njub gu koy mën a gindi wala kitaabin du caa kenn benn téere mu niirun bu koy leeral te ku mel nii wa ida qila ndeem waxeef na lahum ñeexal leen ittabiu topp leen maa ansalallahu la wàccee na ko yàlla xaaloo ñu ne balli fi nekk daal ñun na tabiu dañuy topp maa wajat naa liñ fekk àllahi ci moom abaa naa suñ bàyyi li suñ bàyyi newoon rek lañuy topp mu yoonu saytaane yàllay laaj ne ah ndax ñoom dañuy topp yoonu seytaane di topp seytaane aw dégg nga walaw kaana donte mbir moomu nekk na seytaanu seytaanu moomu ñuy topp yad'uhum di leen woo ila azabi sairi jëmee leen ci lu leen ni bijjël mbugalam safara tamit moom la topp ñii de perte nañ kon gis nga ko aaya jàngoog ak xéewal yu rëy ñu yàlla tàggatal soo ko doon tënk daal da ngay wax ne li fi ne lépp nit a ko tax a jug nit nag su xamee boppam yàlla rek moo ko tax a jug waaye leneen lu dul yàlla rek nit a ko tax a jug moo tax nit ba muy ñëw dafa fekk lépp pare dimanche ci la yàlla commencé bind àdduna altine talaata àllarba alxemes lépp lu nekk ci kaw suuf ak lu nekk ci asamaan ak li ñu ëmb ñoom ñaar ci xéewal ak ci teraanga lépp pare mu des nit yàlla door a bind aadama mi nit ci diggante tàkkusaan ak timis ne ko yow laa mujjee bind li ma doon bind lépp di ko jiital dama lay mujjee pour nga ñëw jariñoo ko ñëwal nga jariñoo géej gi ak lim ëmb ñëwal nga jariñoo asamaan si ak lim ëmb ñëwal nga jariñoo suuf si ak lim ëmb su ko defee nag yow soo xamee sa bopp man dong maa la war a tax a jug yeneen yi ci des yëpp yaa ko tax a jug foo ko fekk rek mën nga koo jariñoo yàlla tamit yemut ci loola mu lëwal xéewalam yu feeñ yi ak xéewalam yu nëbb yi mu topp nit bi mu la defalee xéewal mu génnee njaboot ci sa biir nga koy xool sa bët di ca bànneexu muy xéewal mu tàggatal la waruwaay boo xam ne ci jéeri ji la muy xéewal soo bëggee sa yoon gàtt muy waruwaayu oto yeeg yi ci ajoog métro yi nga ne dama bëgg tukki te fi may dem oto mënu faa dem mu tàggatal la avion yi ci lu toll ci waxtu yu néew mu yóbbu la fi nga bëgg dem yaag say bagage yëpp ngeen xaj ci nga ne ko fi ma jëm du nekkatul jéeri ji nekkatul jaww ji mais foog ma traversé géej mu tàggatal la bi maanaam bato yi ak fiir yi yaag say bagage yëpp ngeen tegu ci ba fa ngeen war a yegg loola lépp ay xéewal la yoo xam ne nit ki mu ngi jàkkaarloog moom waaye dana ko miina miina miin ba du ko du ko gisati mu topp tamit tàggatal la xéewalu biir toog rek yàlla baaxee la ngay jullit loola doy na xéewal yàlla baaxee la nga sopp sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko roy di def ndigle yi di bàyyi tere yi nga am ci sa bopp ak kóolute ci li nga nekk loolu tamit am yaqiin loola bi maanaa tamit xéewal la goo xam ne gu rëy la xéewalu yàlla daal duñ daj di topp nit ki ba ba muy feebar bam demee ba feebar yàlla ne ko may naa la sa ñetteelu xaaju alal muy sulus bi pour nga jangee ko sa jëf yu bon yi ak tamit nga yokkee ko sa yiw moo tax nit ki bu demee ba feebar moom moom ñetteelu xaaju alalam lu ko ci neex sañ na koo def mu dem a dem xéewal yi di ko topp ba mu dee mu ne ko ba tey maal may naa la sa ñetteelu xaaju alal bokkul ci luñ lay war a donn loo ci bëgg ci testament luñ lay war a defal ci lu war a yokk sa wiiw yaa ko moom mu dem joxe ko ñi sang ko yàlla ne ko may naa la dee nga ñi sang la gaat nga ci maanaam nga set wecc ci bàkkaar waaye tamit may naa la pour ñi sang la perkaal bu bees boo xam ne yaa ko njëkk a daloo gaat nga ci bi maanaam ni sa ni perkaal bi beesee ak maanaam ni mu weexee nga weexee ko tàll ëllëg ci sa kanam borom ñu tëral la ci la mu ne may naa la julli julli ñetti xaaj la waaye ni ma la mayee woon sa ñetteelu xaaju alal ci feebar may la ñetteelu xaaju alal bi nga deexee may naa la ñetteelu xaaju julli ga julli ñetti rek la mooy taxawaay rukkoo sujjóot yàlla ne la may naa la taxawaay bi te man nga bàyyee ma rukkoo bi ak sujjóot bi moo tax julleeg niiw amul rukkoo amul sujjóot taxawaay rek la lii lépp di ay xéewal yoo xam ne mi ngi topp nit ki tabaarakallaahu ba ci biir bàmmeelam su ko defee tamit malaaka ya ko fay fekk lañ koy laaj nañu yàkkalee bàmmeelam ak sécurité ba mu fay nekk ak ba na muy dekkee yore téeréem ci loxoom nday jooram jéggi siraat ci nu mu gën a gaawee ba jël losma am ci aljana lii lépp ay xéewal yu dul jeex la yu yàlla defal nit kon nag bu nit ki dëgëree bopp di dàggi sant ci biram yàlla te moom ma koy wax amul benn texte amul leer gu ko tunqum ba mën a wax loola teg ko ci bànneexu bakkanam nga wax ko mu ne li sama baay yi nekkoon ak sama maam yi laay topp te loola bu ko toppee mu yóbbu ko safara kon dëgg-dëgg nit kii bi ko yàlla joxee xel mu war a mën a jëriñoo ci xéewal yi moom jël na xel mooma màbb ko yàq ko ba loola xirtal ko ci loo xam ne tey day tax maanaam mu mu texee at day tax tamit maanaam mu alku dem safara yàlla yàlla musal ñu ci moo tax mu ne alam taraw xanaa yëggul seen ak xam ni anna laaha naka yàlla saxara tàggat na làkkum ñeexal leen maa fil ardi nekk ci juróom maa fi samaawaat nekk ci juróom-ñaari asamaan wa maa fil ardi ak li nekk ci juróom-ñaari suuf wa asbaxa sëmbërtal na alaykum ci yéen niamahu xéewalam yi zahiratan mbir mu muy aji feeñ wa baatinatan ak mbir mu muy aji nëbbu waaye ànd ak lii lépp wa a naasi am na ci lenn ci nit ñi man koo xam ne yu jaadi lay daggi sante fillaahi ci mbiram yàlla bi xayri ilmin ci lu duhut benn xam-xam wala hudan du caa kenn génn ak njub gu koy mën a gindi wala kitaabin du caa kenn benn téere mu niirun bu koy leeral te wa ida qila ndeen waxeef na lahum ñeexal leen ñoom ñooña ne ittabiu topp leen maa ansalallaahu la wàccee na ko yàlla ñun daal na tabiu dañuy topp maa wajat naa liñ fekk alay ci moom abaa naa suñ bàyyi yàlla ne ah ndax dañuy topp lañ fekk seen bàyyi mu yoonu saytaane aw walaw kaana mbir moomu donte nekk na saytaanu saytaan yad'uhum di leen hoo ila azabi sairi jëmee leen ci li leen di bijjël mbugalam safara kon de ñiy perte nañ comme loolu lañ wax lii la yàlla wax ak ñooña waaye tamit euh, alquran dafa nekk ci dayob toftale tudd na ña yàlla joxoon xel sa mbërtal ci seen kaw xéewal ñu war a jël seen xel moomu mu war leen teete bañ mën a jariñoo xéewalu yàlla yu feeñ yi ak yu nëbb yi ñu mujj sànq xel ma topp ko ciy bànneex ba mu mujj yóbbu leen safara ñu jëfandikoo seen xel ma nag ba mën a gis xéewalu yàlla yu feeñ yeeg yu nëbb ñoom la yàllay wax ak ñoom nag ñoom tamit ba dugal leen aljana comme na mu waxee ak ñële ñi sànq seen xel ba dugal leen safara moom lay wax si nii moo tax mu ne waman yuslim képp koo xam ne jébbal na wajahoo jëmmam ja lépp la ci namm donte xarxaram lay firi ilallaahi jëmee ko ci yàlla fekk waxuwa mbir moomu moom muhsinun aji wéetal la yàlla kooka de faqad istamsaka ngëb na bil urwati ca buum nga alwusqaa gi gën a dëgër wa ilallaahi jëm na ci yàlla aqibatul umur yi mu jëg mbir yi de te mooy ray geeg dekkil geeg fay geeg la ca aju waaye wa man kafara képp koo xam ne weddi na ba jëfandikoo xelam mi falaa yaxsun ka bu mu jàqaloo la yow yonentu nga ndax ilay naa ki ñun dong la jëm si marjiuhum seen ak delluwaay te bu ñu ñëwee su ma fay fay fayu nabbiwum dana mu solo leen maanaam fanu nabbiwum danañu solo leen ñun yàlla bi maa amiloo ci lañ doon jëf de inna allaha naka yàlla moomu di leen ko solo alimun aji xam la bi daati sudur li nekk ci jëmmi dënn yi de kon la feeñ moom waxi nopp te bu ñëwee nu mattiuhum ñii danañu yóbbuloo leen xalilan lu néew ci àdduna summa nabtaruhum topp ñu lorulee leen ilaa azabin jëm ci mbugal xalisin mu xiis waaye nag lii kon la mujj ak ñoom mu ne kon koo xam ne danga jël sa jëmm ji jébbal ko yàlla ak wéetal yàlla lal ko yaa ngi mel ni ku bàyyeekoo ci montagne yore buum gu dëgër di wàcc wala nga bëgg a yéeg ci montagne yore buum gu dëgër di yéeg ak moom masal la urwatul wusqaa yi maanaam lépp la xam nga tey kuy yéeg ci montagne wala gën la koo jegeel kiy dugg kiy dugg ci biir teen bi wala mu daanu ci biir teen bi buum gu dëgër lañ koy yoor buy dugg ak buy génn waaye bu buum nga melut noonu rek mu daanu ànd mu daanu waat ci biir ki nga xamee tamit dafay liggéey ci wàllu courant bi am benn pot làmp boo xamee dafa burle mu war a yéeg buum gu dëgër lay takk ci ndiggam di yéeg par nànk ba mën a yéeg ba mën a yegg defar la muy defar tamit wàccaat yàlla nee na nag ku jàpp ci alquran jàpp ci lislaam jàpp nga ci buum gu dëgëree noona nga wóolu ko ba mën laa dugal teen wala mu génnee la buum gu dëgëree noona ba nga mën a yëg ci pot lampe bi buum gu dëgëree noona ba mu mën laa yëg ak yow ci montagne ba mu wàcc la waaye nag ku jàppul ci lislaam ak loo mën a jàpp yaay ki jàpp ci buum goo xam ne moom boo ca jàppee tabaarakallaahu dafay mujj dagg nga nga daanu ànd ak moom kon dafa bëgg a wax ne lislaam daal buum gu dëgër la kon yow mi may déglu boo jàppee ci lislaam jàpp nga ci buum gu dëgër li des nag mooy yow fexeel nga jàpp mu dëgër waaye li nga jàpp bu dëgëree te yow jàppoo mu dëgër tamit du sotti kon lislaam buum gu dëgër la ku ci jàpp góor góorul nga jàpp mu dëgër nga def ndigle ya bàyyi tere ya su loolu amee rek nga mën a mucc aaya ji tegu ci nag mu ne yéeféer yi seen xel mu bon mi liñ koy ñàkk ñàkk jëriñoo pourtant boo leen laajoon kan moo bind asamaan ak suuf ak li ci aju ci xéewal yeeg wërsëg yi ñu ne la yàlla kon li ñuy tuddee tawxidu ya kon ñoom maanaam d'accord nañ ci waaye nag seen problème bi mooy taw tawxidul uluhiyaat yu mel noonu lañ mënul am waaye nag boo leen laajoon asamaan ak suuf li ci aju ko bind ñu ne la yàlla moo tax mu ne wala in saaltuhum wallahi boo leen laajoon man ana kan xalaqa moo bind samaawaati juróom-ñaari asamaani wal arda ak juróom-ñaari suuf yi la yaqulunna danañu wax ne allahu yàllaa ko bind de yàlla nekkoon kon qul waxal yow yonantu bi ne alhamdu sant lillaahi ñeel na yàlla waxal ne alhamdu melawu sax te rafet lillaahi ñeel na yàlla ci layu leer naññ yi waaye bal li fi nekk aksaruhum li gën a bëri ci ñoom laa la ya'lamuuna xamuñ loolu de yow nangu nga ne yàllaa bind li fi nekk waaye yàlla moomu nanguwoo koo jaamu nangu nga ne yàllaay wërsëgal yàllaay rey waaye nag yeneen ya ci aju yow nanguwuloo kooku perte la moo tax mun lillaahi aji sax la ñeel yàlla maa fi sama wat nekk ci juróom-ñaari asamaan wal ardi ak lépp lu nekk ci juróom-ñaari suuf ay mbindeefam lañ ay jaamam lañ ay moomeelam lañ inna allaha naka yàlla moomu nag moom ko huwa moom dong alxani mooy aji xoomal walis jaamoog jaamam yi waaye alxani mooy aji xoomal walis mindeefam yi alxamidu mooy kuñ sant ci mbooleem meloom ya kon yàlla xoomal na jaamu yi ñu koy jaamu yokku dara ca nguuram ga mindeefam yeeg seen bëri gi yëpp yokku dara ca nguuram ga waaye dafa ñoo bind ngir ñu bénéfice wu rek ci moom waaye moom bindut ñu ngir bénéfice ñu ndax mooy samat ñëpp daw jublu ko te moom jubluwut kenn kenn ku nekk tamit la nga ko jubloo rek boo demee tabaarakallaahu fekk ko ca ca noona su ko defee kon nag li fi nekk ci asamaan ak suuf li mu ëmb lépp jaami yàlla lañ mbindeefam lañ moomeelam lañ bu ko defee ñëpp daw ci moom te moom dawut jëm ci kenn kon mooy xanniyu waaye mooy xamidu aaya ji tegu ci dafa wàcc ci délégation bu waa Quraysh ndax bi yonantu bi nekkee Makka yàlla wàccee woon ci moom wa yasalunaka ani ruux quli ruuxu min amri rabbi balaa ya jeex mu ne wama utitum min al ilmi illa qalilan joxuma leen ci xam-xam lu dul lu tuuti ba mu demee ma madinatul munawara nag yahood ya def délégation ñëw ne ko yaa wax ne yàlla joxut ju ci xam-xam lu dul lu tuuti waaw loolu ñun nga ci namm wala sa nit ñi nga ci namm mu ne ko kullan anaytu yéen ñëpp laa ci namm mu ne ko loolu kon nu mën a amee yow xanaa réeré woon ne yàlla jox nañu téere bu ñu tuddee tawreet te tawreet boobu yàllaa wax ne fiiha ilmu kulli shay'in xam-xamab lépp rek mi ngi ci tawreet te yàlla ne xam-xam bu tuuti la ñu jox xanaa sa gaa yi nga ci nam waaye duhul ñun ñi am tawreet yonent bi ne leen yéen ñëpp laa ci namu danga nga réer tawreet moomu li mu ëmb ci xam-xam ak linjiil ak zabuur ak furqaan soo ko comparé woon ak xam-xamab yàlla ba matul toqin ci géej mu commencé nag di leen wax xam-xamab yàlla ba ak bëri waay ga di leen koy misaal ca lañ xam waaye xam-xamab yàlla ba kenn musu kenn mënu ko misaal kenn mu ne ko li ma la bëgg a xamal xam-xamab yàlla bi mbooleem juróom-ñaari suuf yëpp bu ñu leen boole woon saxal ko lépp ci garab amul benn espace lu dul garab nekk na fa nga jël garab yoo yaag banqaas yaag xob yaag lépp les ko mu nekk xalimba nga jël géej gu ñu tuddee baxrul muhiit muy géej gi gën a rëy ci àdduna bi boole kook yeneen juróom-ñaari géej ci waxin loolu lépp nga def ko muy daha li fi nekk ci mbindeef ci malaaka ci mala ci njanaaw ci nit ci jinne ñoom ñëpp yore xalimba yooya di soos ci daha jooju nga xam ne mooy géej gi su boobaa mu ne ko géej ga dana ñiis kalimba ya damm ñey bind dee te xam-xamab yàlla ba du jeex dana mel ni toqin ba tey loolu lépp ci géej moom la koy wax si nii moo tax mu ne ko walaw anna maa fil ardi donte woon li nekk ci suuf lépp min sajaratin ci garab dafa nekkoon aqlaamun di xalimba wal baxru te mbir moomu géej gi di ya muxiit yamudduhu dana tëbbu géej googu min baadihi tukkeekoo na ca gannaaw géej googu sabatu abxurin yeneen juróom-ñaari géej sabatu abxurin juróom-ñaari géej yooyu yëpp ñi boole leen ñiy daxa wallahi maa nafidat du jeex kalimaatullaahi xam-xamab yàlla yi inna allaha naka yàlla asisun ku not la ci nguuram xakimun ku ñala de kon da koo misaalal ci lim xam rek waaye xam-xamam yàlla ba kenn mënu koo misaal ci dara te bu tuddee fii juróom-ñaar namut ci juróom-ñaar arab dafa jàpp ne li gën a bari ci limam rek mooy juróom-ñaar wala juróom-ñaar fukk moo tax muy waxee limab juróom-ñaar wala juróom-ñaar fukk dafa bari ci dafa bari ci liminu araab dañoo bëgg loola moo tax yàlla ba muy wax fale ne masalu alladina yunfiquuna amwaluhum fi sabilillahi ka masali habati nambata sab'a sanabila sab'a sanabila boobu namul ci juróom-ñaari gub lu bëri rek la ci bëgg a ak tamit ba muy wax yonent bi ne ko in tastaghfir lahum sab'ina marra boo leen doon jéggalul juróom-ñaar fukk tamit nu ma leen jéggal namul ci juróom-ñaar fukk dafa bëgg a wax ne rek boo leen doon jéggalul lu mu bëri bëri bëri man du tax ma jéggal leen kon limab juróom-ñaar dafa dafa dafa yàlla da koo bëgg ndax arab yi maanaam dafa bëgg loolu te alquran ci langue ñu arab la bokk moo tax sax yaa ngi dégg yonent bi naan sabaatun yuzilluhumullahu fi yawma laa xilla illaa xillahu juróom-ñaar yàlla dana leen keral ci bis bi nga xam ne benn ker amul lu dul keram nga ñu bari la bëgg a wax rek moo tax mu tudd juróom-ñaar waaye li mab juróom-ñaar moo neex yàlla moo tax mu jël suuf si def ko muy juróom-ñaar mu jël asamaan def ko muy juróom-ñaar naka noonu tamit mu jël safara def ko muy juróom-ñaar aljana sax juróom-ñaar la waaye firdaw si moomu wala illiyina moomu nga xam ne quartier la ci firdaw si mooy juróom-ñetteel ba ni almadi ci waxin mel mel ci Dakar nekk ci quartier noonu la illiyin a mel ci firdawsi moo tax yonent bi daan wax ne ni ñaanati euh, aljana ñaan leen ñaan leen yàlla firdawsi ndax moo ca dàq quartier la ca rek moo tax muy juróom-ñett waaye li ma juróom-ñaar la bëgg juróom-ñaar tax ba nga demee di wër Kaaba ga yaa ngi ko wër juróom-ñaari yoon bëgg juróom-ñaar a tax sax bi ngay dox Safa ak Marwa juróom-ñaari yoon maanaam nga ko dox kon juróom-ñaar daal lim la boo xam ne bu yàlla bëgg la doomu aadama tamit boo seetee dundam ni muy soppeekoo mi ngi soppeekoo ci diggante juróom-ñaar fi nga dundee ñaareel euh, ba fi nga amee juróom-ñaari at lépp daanaka xamoo dara xàmmeewuloo dara lu bëree bëri boo demee ba tegaat ci leen juróom-ñaar beneen changement day ñëwaat nga tegaat ci leen juróom-ñaar na maanaam daal sa sa dund saa yu juróom-ñaari at doolee ko rek changement am ci moo tax yàlla tënk juróom-ñaar yu di soppeeku ci ñeenti ñeenti anam ne innamal xayaatu dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaasuru fil amwali wal awlaad wax ju rëy la dafa bëgg a wax ne doomu aadama bu juddoo ba ba muy amee ñaari juróom-ñaar muy fukki atak ñeent xelam mi lépp lëxwu moo ciy nekk lëxwu mooy fe moo fa moo xam ne amul programme foo moo xam ne teguwul ci xel boobaa da ngay bëgg di dawal ay mbege wala nga yore oto boo xam ne mënut a yóbbu kenn ak fetal goo xam ne mënul tiire kenn soo demee ba mag rek am foofu rek commencé ko maye ko wala nga jox ko sarak yi mooy fi nga juddoo am maanaam ba bi nga amee ñaari at juróom-ñaari at nga am ba ba juróom-ñaari at muy fukk ak ñeent su ko defee tamit boo ci tegaatee yeneen ñaari juróom-ñaar maanaam da ngay bëgg innamal xayatuna laibun foofu lëxwu ngay bëgg mooy fo moo xam ne dafa tegu ci xel nday fekk nga am ñaar fukki at nangam da ngay bëgg bëre bi wala nga bëgg football bi wala nga bëgg fecc meeg yeneen yi ci aju nga xam ne fo moo xam ne teg nañ ko ci xel la ci waxin boo ca tegaatee yeneen ñaari juróom-ñaar fanweeri at ak nangam ngay am ziinatu ngay bëgg mooy lu rafet rek da ngay bëgg yow sa bopp nga rafet sangu ba set diwu sol yëre yu rafet am oto bu rafet soxna su rafet kër gu rafet su boobaa zinatu rek ngay dund waaye nag boo ki tegaate yeneen ñaari juróom-ñaar tafaaxur ngay dugg yaa ngi dugg ci que juróom fukki at jëm kaw tiitaru rek magam juróom-ñaar fukki at tiitaru rek naanaam nangam ak nangam maa ko am maa moom nangam maa def nangam loolu rek lay toog waaye boo ki tegaate yeneen juróom-ñaari at nag takaafur ngay am mooy maa gën a bëri le nangam maa la ëpp ay titre foncier maa la ëpp oto maa la ëpp doom maa la ëpp soxna takaafur jooju ngay nekk nag moo tax mu ne wa takaasuru fil amwaali wal awlaad ba dem dugg ci biir bàmmeel ci alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir kon doomu aadama juróom-ñaar daal da koo topp fu mu ko topp rek day nekk ci changement ci moom moo tax mu ne walaw anna maa fil ardi donte woon li nekk ci suuf min sajaratin ci garab aqlaamun di xalimba muy xabar ja su ko defee mubtada mu akar maanaam ak euh, maanaam yi mu xaddam la wal baxru ta mbir moomu géej gi yamudduhu dana tëbb ko min baadihi aji nekk la ci gannaawam sabaatu abhurin juróom-ñaari géej lii lépp buñ ko dagalee woon géej lépp di daha garab yëpp di xalimba mindeef yëpp di bindkat maa nafidat du jeex kalimatullahi xam-xamu yàlla yi inna allaha naka yàlla asisun ko not la ci nguuram xakimun timit ku xere ñele de léegi nag bi yàlla waxee moom yàlla li lay xamal xere ñam ngaak xikmatoom nga mu ne maa xalqukum déet seen ak bind wala baxsukum ak seen ak dekki illa ka nafsin lu du mel ni ki lu mel ni bind benn bind bakkan waahidatin bay benn inna allaha naka yàlla samiun aji dégg la wax yi basirun aji xam la jëf yi de kon yàlla dañ koo laaj na ko waaw yow yonantu bi mbindee fi nu ñu bëree bu leen yàlla rayee bala leen a bindaat ba leen i dekkil di leen i régler dana yàgg de mu ne leen yàlla nag tontu ne mbindee fi yëpp du ñu leen rayee ñi nekk ci seen biir bàmmeel ñi nekk ci yeneen place yi muy seen bàmmeel dekki bindal gi ma leen di bindalaat di leen dekkil mi ngi mel ni ci man ni mu yombee ci waxin mi ngi mel ni bind benn bakkan ni mbindeef yëpp am bind leen mi ngi mel ni bind benn bakkan su ko defee loolu nag da koo waxin rek ci li gën a jege waaye sax moo gën a yomb loola koo xam ne innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun dara dara jafewut ko beneen bi ti mu ne wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar lu mel noona kooka dara dara jafewut ko te ki la sosoon dëgg-dëgg taqul la fen su la rayee ne mën naa laa bindaat lu gën a gaaw waroo koo mën a weddi ndax fi mu jaar ak yow ba nga am moo gën a jafe fi nga fi maanaam bu lay bu lay bu lay bu lay bu lay dekkilaat moo tax mu ne maa xalqukum déet seen ak bind wala baxsukum ak seen ak dekki illa ka nafsi lu mel ni ki lu dul mu mel ni bind bakkan waaye ditin bay benn inna allaha naka yàlla samiun aji dëgg la wax yi waaye ba tey basiirun aji xam la jëf yi de yàlla moomu alam tara xanaa xéggut sa xam ne ana laa naka yàlla yuulu ju dana mu tàbbal lay la guddi fi nahaari ci bëccëg mu dolleeku di fukki waxtoog juróom moom bëccëg ba wa yuulu ju mu tàbbal nahaara bëccëg fi li ci guddi mu wàññeeku di juróom-ñeenti waxtu wa saxara mu tàggat shamsa jant bi wal xamaraag weer wi kullun ñoom ñëpp ya jiri a ngay daw ca ful seen fulug ya ila ila ajalin jëm ba diir mu saman ba de buñ tudd te mooy tukkeeg àdduna ngeen xam ne wa anna allaha naka yàlla xabirun ku dañ kumpa la bi maa tamal li ngeen def de loolu nag ku ko sa kilifa wax nga war a jàq la wa mu ne zalika loolu ma tudd nag bi anna allaha naka yàlla huwa moom dong alxaqu mooy dëgg ju de wa anna maa yad'uuna daal la nga xam ne ñu ngi koy jaamu min dooni te duhut yàlla albaatilu mooy neen joo xam ne dafay bàyyeekoo de wa anna allaha naka yàlla huwa moom dong la alaliyu mooy aji kawe ci nguuram waaye alkabiru mooy aji màgg ja de yàlla rek a yàlla moo am kartanu dugal guddi ci bëccëg te doo xam fan la dencoon bëccëg bu léegee mu dugal bëccëg bi ci guddi gi te doo xam fu mu ko dencoon léegi-léeg guddi gi lekk ci bëccëg bi ay waxtu léegi-léeg bëccëg bi tamit lekk ci guddi gi ay waxtu gën a yàggante bi day am am ci réew yoo xam ne ñoom li ñuy nekk ci bëccëg sax moo ëpp fuuf li ñuy nekk ci ci guddi kon loolu lépp kenn ki ko def programme ko moom moom mën a moom benn séddale ko ñëpp séddu ci benn bi te tereewut benn di benn kooka rek mooy yàlla boo seetee tey nga jàppoon bisu tey bii nga ne mooy talaata foo dem ci àdduna bi ñu ngi talaatawu ki talaatay talaata ji te tereewut talaata moom di talaata rek boo demee France tey la talaata Amérique tey la talaata boo demee maanaam tamit arabi Saoudite tey la talaata te talaata moom benn rek la kon yàlla dong moo am carte na séddale benn mu séddu ko ñëpp kenn ku ne am ca te kenn ëppalewut ca sa kon ki mel noona dëgg lañ cay déggee xulaasatu ba kookaay ki jara jaamu kookaay ki jara wéetal kooka tamit moo jara topp waaye koo toppati wala loo toppati lu dul loola su boobaa maanaam pertement dong la lay jural ndax li la kii mënal kenn mënalul la ko aaya jii tegu ci nag mi ngi wàcc ci ku ñuy tuddee ikrimatu doomi abi jëhlin la woon bokk na ci fukk yi yonantu bi setti woon ne fatxu màkka ñu leen fekkee ñi langaamu ci ridoy kaaba ga sax nañ leen rey ngir jëf yu bon yiñ def yonentu ba muy dem fatxu màkka tuddoon na ñeenti jigéen ak fukki góor ne leen seen mbon gi jéggi na dayo su ngeen leen fekkee ca kaaba ga ñi langaamu ci rido sax rey leen leen ñooña ikrimatu ca la bokkoon ñooñu abdullah ibnu xantal ca la bokkoon moom dafa duggoon ci lislaam ba ci kanam mu murtat bi mu murtatee ngir ak texee jënd ñaari musicien fay leen xaalis ñiy tëgg nit ñiy fecci ñiy way di xas sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentu bi ne kii ñaari jëf yu bon yi mu jëf xas ma rek doy na bon jël nit fay ko mu may xas doy na bon dugg ci lislaam ba ci kanam nga génn ci doy na bon kon bu ngeen ko fekkee mu langaamu ci ridoy kaaba ga sax rey leen ko waaye yonentu bi kenn moom keroog fatu Màkka mu daw langaamu ci ridoy Kaaba ga lañ ko fekk moom ñaari waykat yooyu di ñaari musiciens yi foofu lañ leen fekk ñoom ñetti ñëpp ray leen kon ba ko yonantu bi wax ma nga Madina départ waaye nam ko waxee woon foofu lañ ko fekk ci ca ridoy Kaaba ga mu langaamu ca ñaray ko keneen ki mooy Abdullahi ibnu Abi Surahin mbokkam nampaaleeg Ousmane ibnul Affan la woon waaye bokkoon na ci secrétaire yonantu bi daan bind wax yu bu ay wàccaan moo ko doon bind waaye gis boppam moo ko yàqal ndax lu la yàlla mën a may boo gisee sa bopp yàqule te saa yoo gisee sa bopp nit ñi dootuñ la gisati moom ci boppam da doon bind wax yu yegg ca aaya jële ci suratul muminuuna fi yàlla di waxee naan summa anshanaahu xalqan axara ba mu bindee ba yegg si foofa mu wax ci làmmeñam ne fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin yonentu bi ne ko bind ko ci la bokk am ko bindee pare mu ne ay man kay dañ may wax yu mbir mi nekkee wax yu rek la eh, man kay dañ may wax yu yonentu uxiya ilaya fekk walam yuha ilay shay mu ne dañ may wax yu nag daal di eh, yéen daa di murtat nag gis boppam bàyyeekoo Madina dem dem dem dem kii dem dem Makka yonentu bi ne bu fat fatxu Makka jotee bu ngeen ko fa fekkee ci lënga ci ridooy Kaaba ga leen ko heureusement bi mu ñëwee nag moom tamit ñu fekk ko ci Kaaba gi Ousmane tamit ku bëgg mbokk la te moom ñoo bokk benn jigéen gu leen nàmpal Ousmane laaj yonentu bi ne ko dama lay ñaan daal nga rus ma ci moom ma garante ko yonentu bi noppi sëgg lu yàgg yàgg yàgg mu door a wax ne ko waaw daal di nag mu wax saxaaba yi di leen bu ngeen gisee ma noppi bi ma Usmaan laajee te moom yàlla da ko rus ma rus ko malaaka yi rus ko kon daal moo dama noppi woon li ma ci jubloon mooy kenn ci yéen gaaw rek njëkkalante rey ko moo taxoon ma noppi distance boobu ba mu ko waxee saxaabi yu bi ne ko waaw mënoo ma woon a piis ki say bët ba ma xam loola mu ne ko noo ab yonent du piis ci ay bët loolu dafa xaraam nit ku baax sax du ci ay bët kon maanaam loolu moom moo ko soxee mu gën a mu gën tuub nag keneen ki mooy Xuwayrith moom ci boppam keroog ba nga xamee ne Fatimatu da doon gàddaa yi ak Umu Kulsoom ñoo bokk benn gëléem gu ñu war mu tiital gëléem gi nëbbatu tiital gëléem gi rek gëléem gi daw daane leen ñoom ñaar eh, yàlla dogal na moom tamit dañ koo rey Ali ibnu Ali na Abi Talib moo ko fekk foofa ca kii ba rey ko kon moom tamit bokkoon na ki ñu yonantu bi setti kon keneen ki mooy xibaar xibaar moomu moom dafa tiitaloon gëléem gi na Seynabu war mooy doomi Seydunaa Muhammad fekk Seynabu mi ngi ëmb nekk jigéen bi mu ko tiitalee gëléem gi daw sëy na bu daanu mujj avorté foofa la jëlee feebar booba sax ba feebar boobu topp ko moo ko yóbbu àllaaxira moom tamit dañ koo mujj euh, ñeen dafa nëbbatuñu ne keroog fatxu Màkka bi mu passé yàlla dimbali ko mu tuub du kenn ki nag mooy Ikrimatu moom dafa dawoon ba yegg ci géej mu dugg ci gaal ba duggee ci gaal rek gaal gi dem ba ci digg géej gi rek ngelaw li commencé ak yi fu nekk nag maanaam vague yi di ko ñëwee ñoom ñëpp woolu ne dañuy suux mu tiit nag ne yow yàlla maa ngi jaayanteeg yow soo ma musalee ci géej gi ba deewuma ci wallahi danaa sukk ci kanam sayyiduna muhammad tuub dugg ci lislaam yàlla ba muy wax loola ngelaw la dal après nag bu mu wàccee ca tefes ga nag ci la dem sukk ci kanam yonantu bi jéggalu ko lu paase lu ñaaw la mu defoon bu ko defee dugg ci lislaam te al islaamu yajubu maa qablahu lislaam boo ci duggee lu bon la nga defoon lépp loolu maanaam da koy da koy màbbu kon fii li mu bëgg a wax rek am na ci nit ñi ñoo xam ne bu ñu jàqee rek delloo seen bopp ci yàlla waaye bu njàqare ga dàqoo rek ñu delluwaat ci lañ dellu woon ñi miin dugg avion loo am am fit bu avion bi décollé rek ñëpp tiit kenn dootul yëngatooti kenn du wax ak sa morom waaye bu demee nag ba tegu fi mu war a tegu rek nag ñu commencé sawi ñam yi nag waxtaan ba commencé bu demee bay wàccaat tamit ñëpp jàqaat fekk ba muy dalee ñaareel sax da nga gis bu dalee ñëpp tàccoo ndoor ma ne xaw ma pilote bi lañ war a tàcc wala yàlla yàlla mi nga xam ne maa yumsikuhunna illa rahman moo téyewoon avion bi ci jaww ji dara téyewul ko kon moom dong lañ war a tàcc waaye tim boo nekkee ci géej gi léegi-léegi dana toll moment boo xam ne ñëpp ay jàq kon nag li li am solo soo jàqee dellul ci yàlla soo nekkee ci sécurité tamit dellul ci yàlla boo ko defee rek am jàmm waaye boo jàqee làqu ci yàlla bu bu safaan ba amee nga nga wan yàlla gannaaw kooku tamit baaxul am na ki ñoo xam ne tey bu ñu feebaroon rek commencé julli commencé def lu baax commencé lu nekk waaye bu ñu wéree rek delluwaat ca lu bon lañ nekkoon ñenn ñi tim bu leen yàlla nattoo rek ñu jàqaat tàllal seen loxo yi yàlla mu benn seen liggéey yàqu wala ñu dàq leen wala ki ñu doon liggéey ak ñi mujj am problème fu ne rek fu nekk dañ fa dem waaye bu mbir ma jagaatee rek ba mel na melaatoon rek ñu fàttewaat yàlla kon loolu ku ko def yaa ngi yore melow xéeféer yi ndax ñoom li ñuy buñ jàqaan rek li ñuy bon bon dañ dellu ci yàlla waaye bu leen yàlla mayee sécurité rek ñu jàmbuwaat ko kon nit ki fu ngeen toll fu ñu toll nañuy fexe di dellu suñ bopp ci yàlla loolu mooy li am jolo moom lay wax si nii moo tax mu ne ko alam tara xanaa yéggul sa xam ne anal fulka naka gaal yi te jir yi danañu daw fil baxari ci géej gi bi ni'matillahi ànd xéewale yàlla yi seen bagage yëpp yéen a ngi ko teg ci biir gaal yi ci biir féeri yi ci biir avion yi ci biir bato yi mu leen ko yóbbul lii lépp lu yurikum ngir na wan leen min ayaati ci lenn ci kawtéefam kawtee fi yàlla ya leen koo gis minam tarid la yàlla ne inna fi zalika naka nekk na ca loolu li ayatin ay kawteef li kulli sabaarin ñeel képp kuy koon ba bàyyi mooy yàlla shakurin kay santaakoon ba topp yàlla waaye ñu mel ni ñaareel wa idaa ghashiyahum ndee muur na leen mawjun duus ka xulali maanaam duus yoo xam ne dafa mel ni ki ay montagne yuñ takki ndeeral daaw ñu xoo laaxa yàlla muxlisiina mbir muñ ko muxlisiina mbir muñ koy way sella law ñel ko diina diina ji waaye fala maa najaahum ba nga xam ne musal na leen ilal bari bañ yegg ca jéeri ja fa minhum am na ca ñoom muqtasidun koo ne dafa jub ba mel ne ikrimatu am ci ñoom nag ñoo xam xamee dañoo jeng waaye wa maa yashhadu du weddi bi ayatina suñ kaaw teefile illa kullu xattaari lu dul képp kuy xoraa kon kafoorin kay weddi haa kon de képp kuy weddi haa kon xéewali yàlla yi nekk ab xorkat rek mooy koo xam ne bu jàqee daw làqu ji yàlla bu bu demee ba njàqareem nga tamit eh, maanaam wan ko gannaaw maanaam mu mu jàmbuwaat yàlla dem ci saytaane te loolu dafa bëri fi ne nañ ki suñu réew mi ñu bëree bëri bu dëj amoon jigéen goo dajee mi ngi muuru yore kurus commencé di kocc koccal waaye nag bu dëj bay bu dëj bay dem ñu ne bisab saraxal ba ñoom ñëpp fàtte nañ kurus ya ña nga mujj maanaam émaay seen seen seen seen wey peinture seen xar yi kenn ku ci nekk yore saak sañse nekk foofa di wax waxi àdduna di wax waxi àdduna nekk fa di wane wane puukarewu waat naa ci yàlla bu leen fa julli fekkoon sax ñu bëri duñ dem julli ji te pourtant ki leen fi tax a dagale mooy ku dee te ba muy dee ñi wax leen ko ñëpp jàq nañ commencé ñaan muuru nekk ci jàqare waaye bu loola xasee passé rek ñi ñi delluwaat ca lañ nekkoon kon loolu lu bëree bëri la loolu nag ku koy def rek wér na nga vérifier sa ngëm waaye nit ku nekk da ngay war a nekk bu neexee nga ànd ak yàlla bu naqaree nga ànd ak yàlla waaye bu neexee nga jàmbu yàlla bu naqaree nga ànd ak seytaane kooku baaxut xam nga tey ñu ci bëri tey buñ ne céet la muy bisa bànneex dañuy jàmbu yàlla dem dem ànd ak seytaane bare koñ bi indi musique yi ñuy fecci di bànneexu di wax lu nekk buñ ne ngénte ni doom jafe yàlla xéewal la ko nga jàmbu yàlla ànd ak seytaane di fecci bànneexal sa bakkan ba mu neex waaye buñ ne dëj rek nag nga ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'una delluwaat nag ca yàlla waaye amul ko kenn mësul gis ni dee nga ne tegal musique bi kenn mësu koo dégg dafa naqari moo tax nga ànd ak nga ànd ak yàlla waaye ba mu neexee nag da nga jàmbu yàlla dem ànd ak seytaan yi may wax toujours nag takk soxna di ko feccal am doom di ko feccal doom jooju bu màggee fecc rek lay man fecc yu bëri rek lu rek moo ko waral fecc mu bëri mi loo rek xale bu ci am juróomi at fecc rek comme foofu nga jaar dafa bëri ci wàllu woowu koye nag su fekkoon da takk soxna def na yonentu bi defoon keroog bañ ko jébbalee sayyidatuna Aïcha mu jàpp jàpp lu bees taq Aïcha jàpp ñi fanaanoon naafila ba bër set doom ñëw xéewal ya tamit noona mu santee ko yàlla wane ne bëri na sama morom yonentu tuy ma jiitoon amuñ doom waaye yàlla may la doom ni mu jafee amoo dara loo njukkal yàlla lu ne damay damay fecc xam nga ne loolu baaxut su ko defee aaya jii nag bi ngi wax ak yéeféer yi wane ne yowmal qiyaam lenn rek moo fay jariñ mooy jëf ju baax mbooleem wasaa'il yi benn wasilatu moo fay des mooy jëf ju baax rek amalu saalih waaye ne damay làqu ke sama baay du fa jariñ damay làqu sama doom du fa jariñ damay làqu ci sama sëriñ du fa jariñ damay làqu ci sama yonantu du fa jariñ su fekkee ne baaxuloo waaye nag boo baaxee góorgóorlu ci sa mbaax waaye am na loo manqué le yàlla mën na laa baaxe làq la ci sa gannaawab yonantu mu ramu la mën na laa baaxee làq la ci gannaawab sëriñ mu ramu la mën na laa baaxee làq la ci gannaaw malaaka mu ramm la ndax yonantu bi kat saxal na ramm ne yashfau axyaar yi min baadi gannaaw bi ma ramee ba pare sama tànnee fu xeet danañ ramm waaye nag rammu moom ku def dara lañ koy defal koo xam ne gëmoo yàlla doo julli doo def lu baax ba dee yaakaar ku la rammu sëriñ mënu ci dara ab yonantu mënu ci dara ab wëllu yu mënu ci dara ku def dara lañ mën a dimbale waaye ku deful dara kenn mënu laa defal dara moom lay wax si nii nag ci yéeféer yi moo tax mu ne yaa ayuhan naasu hee yéen nit ñi ittaqoo na ngeen wéetal rabbukum seen borom wax saw ngeen ragal yow man bis bopp laay ji si du fa jariñ walidun waajur waajuru xéeféer la ca namm an wala di ca doomi xéeféeram ja du ko fa jariñ dara mu xasaf mafool ma waaye wala mawludul caa kenn ku ñu jur muy doom ji du fa jariñ huwa moom jaasin muy aji jariñ jaasin muy aji jot an waaldi ci waajuru xéeféeram wa du ko fa jariñ shay an dara inna waadalaay naka dëxalab yàlla bi xaqun lu dëgg la ne moom loola mu dëxal dana ko def mooy bis ba dana ñëw lam digga ca bis ba dana ñëw kon nag falaa taxurunakum bu mu leen xor alxayaatu dund bi duniyaa bu jege bi wala yaxuranakum bu mu leen xor billaahi ci yàlla alxaruuru kon bi di iblis ki turam la bokk muy seytaan su ko defee nag mu ne kon liggéeyal leen bis bii nga xam ne bakkanab xéeféer du fa jariñ moromam ma dara waaye nag bakkanab jullit dana fa jariñ moromam ma boo nekkoon waajur góorgóorlu ci jaamu yàlla sa doom yi tamit topp la ca waaye fa nga yegg ci daraja yegguñ fa yàlla mën na leen a yéega ki sa daraja yow tamit boo yaafusee sa sa sa doom yi gën laa farlu man loo mënut ba yegg foo yegg fuñ foo yeggut soo lëggee mën nañ laa yéege ci sa dara jaay doom yi alquran wax na ko walladina amanu wattabaatuhum zuriyatuhum bi imaanin alxaqnaa bihim zuriyatihim waaye nag koo xam ne ab xéeféer nga yow sa doom di yéeféer yéen ñaar seen ñaari bakkan yi duñ jariñante ci dara ñoom ñëpp safara kenn du leen mën a ramm kon nag boo toppee sëriñ bëgg mu ramm la lam doon def def ca la nga man la muy tere nga bàyyi ko boo légee fa muy yegg boo fa yeggut yàlla yéege la ci maqaamam ba boo bëgg boo toppee yonentu bëgg mu ràmmu la la muy digle def ko boo légee fa mu yegg boo fa yeggut yàlla yéege la ca maqaamam ba soo amee bàyyi muy waajur la muy def mënoo ko la muy digle def digal def ko la nga ca man boo légee bu ko yàlla dugalee aljaana mu yéege la ci maqaamam bi waaye toog rek nag defoo dara jël sa lépp bëggu koo wéer ci nit tamit du sotti nit ñi coow rek bëri te coow li fii ci kaw ci kaw àdduna bi la waaye tey kenn ku nekk ñun sa mbiram àdduna sa sa baay doyut la ci amul kenn ku la ci doy leen lu nekk yaay dem di ko taxawee amul kenn kuy taxaw añ jot nga ne paa bi añ na kon jarut may añ foog nga lekk doo wax ne paa bi lekk naan naan na taxawal ma du ma naan waaye kay da ngay naan ca la nga man lekk ca la nga man soo lëggee tamit loolu la yàlla bëgg ñuy def lu baax li ñu suñ gaa yu baax yi di digal nañ ko def la ñu tere ñi bàyyi ko boo lëggee fa ñu yegg buñ fa mënta yegg yàlla yéegi ñu seen maqaama su ko defee loolu bu amee rek mooy mën a am ci jàmm jàmm mën a am waaye toog nag lu la neex nga nekk ca naan lii laa bëgg tumat boo léegi tamit du sotti mag ñi xëy ñu te demaguñ yow mal xiyaam mag ñëpp góorgóorlu nañu ba tabaxal ñuy jumaa góorgóorlu ba taalifal ñuy téere ku la tabaxal jumaa juliloo na la ku la taalifal téere jàngaloo na la ku la jàngaloo loo la nag bu yowmal xiyaamee kooka xëy na la te fekk la yoogu leen kon nag li ci des rek mooy góorgóorlu aaya jii may tëjee nag muy bopp saar wi ah, benn yéeféer bu gàtt xel buñ daan tuddee xaaris ibnu omar xaaris ibnu moo ñëw ci yonantu bi ne ko dama lay laaj juróomi laaj xam nga ñaari laaj a gën a naqaree tontu laaji ku xamul dara ku xamul dara bu la laajee ñaareel doo mën a tontu ku xam tamit di la jéem a jam ca ruq-ruq ya bu la bu la laajee ñaareel doo mën na tontu ndax lépp kenn mënu koo teewlu mën nga koo xam sax fàtte ko lii nag mooy laaj ku xamul dara mu ñëw ci yonent bi ne ko juróomi laaj laa lay laaj bi ci njëkk mooy kañ la bis penc yi taxaw ñaareel bi tamit dama amoon baykat laa jël naa sama jiw yëpp dugal ko ci suuf si kañ la yàlla ji taw beneen bi mooy sama soxna dama ko bàyyi mi ngi ëmbu dama lay laaj ban ban doom la ëmbu góor la wala jigéen la beneen bi mooy programme bi ma amoon démb doon ko liggéey xam naa ko lan mooy sama programme suba lu ma war a liggéey suba beneen bi mooy maa ngi ni di dund ak yow fi ma juddoo xam naa ko mais fan laay dee ban suuf laay dee xam nga juróomi laaj yi du laaju dara bam ko laajee yonantu bi nag yàlla tontul yonantu bi yii la ñu tuddee mafatihul xaybi mafatihul xaybi xamsun caabi xaybu yi nga xam ne yàllaa ko tëj daataarloo xam ko Buxaari wi nee na juróom la yonantu bee ko wax juróom yooya mooy taxaw ak bis penc kan la li jigéen ñi ëmb lan la nan lay tawee fu muy taw programme bakkan yi suba wala déwén ak bakkan bu ne tey bu senegal nekkese sa nationalité fan ngay deexee ci géej ngay dee wala ci jéeri wala ci jaww ji wala ci safara fan moo war a nekk sa bàmmeel kooku yàllaa ko xam juróom yii nag la yàlla di wax si nii lii nag dàquxantewu xam ak yàlla ga muy xayboom ga man naa am ñum ca yëral am nañ ci yàlla baaxee bam ne alimul xaybi wa shahada wax na ne fa laa yuxiru ala xaybihi ahada mu ne illa man irtada min rasulin lu dul ñoo xam ne gërëm na leen kon na ci ñoo xam ne yàlla gërëm na leen ba am lu mu leen yëral ca xëy bugga kooku yonent bi ci la waaye tamit ña toppoon yoonam nga wàccuñ ko am na ki ñu ca yàlla yëral xam nga wax na ne jigéen gi lu mu ëmb xamuñu ko aboubacar siddiq ba mu demee fële ca madinatul munawara yonent bi dafa tànnoon ñeen fukk ak juróom ci muhajirina yi tànn ñeen fukk ak juróom ci waa saar séexale leen ne diw diwoy sa njaatige sayd ibnu xaarija wala xaarijatu ibnu saydin moom la aboubacar séexale woon nag moom la yonent bi séexale woon nag aboubacar mu nekk njaatigeem ci lépp rek ñooñu nag booba yeggoon nañ ci ku ci am ñaari tool jël sa benn tool bi may ko ki la yonantu bi séexaleeg ku ci am ñaari kër noona ku ci am ñaari mbubb noona hitte hoohoon nañ ba ku ci am ñaari soxna sax bëgg a fase kenn ka bu jàppee yedd keneen ka takk ko yàlla ne ëpp na nag ñoom la yàllay tagg ne walladina tabawau daara wal imaana min qablihim yuhibuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim xaajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa kon loola mbaax mënu koo passé su ko defee nag bintu xaarija mooma maanaam xaarijatu euh, xaarijatu bnu saydin doomam ñu ko tuddee bintu xaarija dafa ëmboon aboubacar toog ne yàlla xamal na ma ne soxna si jigéen la ëmb kon kooku ci xay bu yàlla ga ko yàlla yëralee demeet ñi fiy wax lu ñëwagut te bu ñëwee dëppoog nañ koy wax boo ko doon wax du jeex ñooñu ñëpp tamit yàlla moo leen ko xamal yàlla moo am rek lu leen ca yëral waaye duhul lépp yàlla sax ci yërëm googu da yëral na ci tey ci euh, ci avancé xam-xam xam nga tey xam-xam yegg na ci ñi nga xam ne seen xam-xam dafa dafa aaju ci wàllu falak muy falaki yu na yi am nañ seeni i tegtal yu ñuy def ba ne suba yàlla ji dana taw léegi léeg mu tombé léeg-léeg mu ñàkk a te loolu danay bëri lu muy am tamit ñi nga xam ne yàlla may na leen ci wàllu médecine avancé na tey ba jigéen gi danay toll foo xam ne ñeenti weer jëm kaw bu ko waa ji dëppee appareil bi rek ne la góor la ëmb wala jigéen loolu tamit maanaam lépp xam yàlla bu leen yëral la demeet demeet ba yegg foofa nag waaye nag fi yàlla nag yegg fa fu kenn yeggut mooy avant ñaari toqantal man yu di jaxasoo la yàlla xam góor lay doon wala jigéen foofa tamit la yàlla xam ndaw si ndax ëmb bi dana mat wala du mat foofa lay xamee tamit maanaam xam fekk xam na ko ku gudd ku yaatu wërsëg wala ku xat lay doon ku ñaaw lay doon wala ku rafet ku gàtt fan wala ku gudd fan lépp fekk yàlla xam na ko ba programme ko ba demee nag ba mu am ñetti ñeen fukk muy téeméeri fan ak ñaar fukk mu door a ebal malaakam mi mu ñëw nag bind euh, firndeel loola ci biiru yaay gi ca ca nenne ba te yaay gi sax yëgut ko programme wërsëg wa ñu programme fan ba programme rafetaay ba ak ñaawaay ba jafe-jafe ya muy dund lépp ñu programme ko foofa su ko defee nag mu door faa nekk juróom-ñeenti weer wala lu ko ëpp wala lu ko gën a néew soxna sa door di ci su ko defee kon nag ma mafatihul xay bi mooy xam sun yi nga xam ne moom la yéeféer bi laaj yonantu bi yàlla di ko tontul sayduna muhammad moom lay wax si nii moo tax mu ne wa indahu aji nekk la fa moom wala nga ne inna allaha naka yàlla indahu aji nekk la fa moom ilmu saati xam ak bis penci bis penci kañ lay taxawak na muy taxawee yàlla dong moo ko xam moo tax sax bi jibril ñëwee di ko laaj yonantu bi yonantu ne ko ki nga koy laaj yow mi koy laaj ëppul la ci xam-xam jox ko ci nag ay mandarga yu bëree bëree bëree bëri yooya yu bëree bëree bëri la mandarga yooya bokk na ca doom tey bu demee ba xilif waajuram ya te loola bari na léegi ndax léeg-léeg yàlla may doom ndoom ba tànk wala mu may ko daraja wala mu may ko xam-xam wala mu may ko alal joo xam ne waajur ya ko meññ amuñ ko woon mu mujj fu mel ni kàddoom dong la ñuy déglu moo leen xilif fu mu leen yónni ñi dem lu mu leen doxloo ñi dox ko mu ne bokk na ki tamit bu àdduna demee ba nit ñi di wàññi di yónni seen waajur yi bis bu demee ba jamono toll ci nit ñi yónni seen baay yi seen yaay yi àddunaa ngi bëgg tukki yegg nañ ca te yaakaar naa ñu bëree bëri yàlla jox sa wërsëg na ñu nekk ca moodu moodu ya ni ñuy yónni bëri na de ni ñuy yónni fii ci réew mi bëri na de léeg nga yónni ci kenn mu sawar ci lool waaw grand bi moom ma wëddee mu naa ko doxal nangam ak nangam sawar ci lool su ko defee kon loolu lépp mandargaam bis penc la mu ne ko timit bokk na ca mandarga ya ña gënoon a ñàkk buñ daan dox rafle ba amuñu dàll di fàndaañu amuñu yëre yuñ sol suñ demee ba ñuy sutlante ay étage étage boo wax mën a diwa ko moom te boo ko dàqee démb amul dara moo moom foofa buñ fa heggee adduna baa ngi bëgg a tukki tey li fi nekk tey ñi gënoon na ñàkk ñoo ko moom kon yooyu yëpp ay junj la yoontu bi junjoon su ko defee nag loola yëpp yu ci bëri mën naa wax ne teg nañ ki suñ bët su ko defee kon loolu nag lay wax si nii ne kon ci wàllu woowu moo tax benn waay waaye li am solo xam kañ lay bis penc taxaw xamul solo xam nga li am solo mooy lan nga préparé bis penc moo tax waa ji bi mu ñëwee ci yonentu bi ne ko mata taqumu saa kañ la bis penc ci taxaw yonentu bi ne ko lan nga préparé bis penc moom ngay wax li kañ lay taxaw demal nga jaamu ji yàlla kon préparé ko la lañ lay laaj moo ëpp solo waaye teel a bëgg dem te yow ba li ngay dem buñ la laajee mënoo koo mënoo koo wane amul solo ne damaa bëgg a tukki dem bitim réew taw boo demee war a def formalité dossier yi ñu war a laaj pour nga war a dugg ci avion bi amoo ko kon bul yàkkamtee tukki xaaral ba dagale dossier yi door a mën a dem kon laaj bis pénc kañ lay ñëw dafa gaaw ak dafa yéex bu ci sa yoon ne fexe la nekk ci li yàlla digle rek bàyyi ay tere moo ci ëpp solo moo tax mu ne inna laaha yàlla indahu nekk na fa moom ilmu saati xam ak bis pénc kañ la moo ko xam moom yàlla moom tamit nekk na fa moom wayu nazilu mooy wàcce alxaysa taw bi xaysu mooy matar waaye duñ benn xaysu taw bu baax rek ëmb yiiw di xettali nit ñi gàncax yay naat bàyyi ma ya am luñ lekk lañ koy wax matar nag lu ne nga ca mën naa nekk taw buy yàq daane néeg ya taw buy faagaagal dënn yooyu daanu nit ñay dee mën na caa nekk waaye xaysu bu ko araa waxee rek taw la boo xam ne léppam hiw la mu ne tamit moom yàlla moomu wa yunasilu mooy wàccee alxaysa taw bi wa ya'lamu moo xam maa fil arxaami li nekk ci biir ruxum yi góor laag jigéen laa mat naag matut yépp moo ko xam wa maa tadri xamut nafsun bakkan maada taksibu an lan lay fàggu xaddan hëllëg yàlla xam ñun ñii kenn ku ne luy sa programme ëllëg man ngaa yéene wax ba tëral ko suba yàlla soppi ko ñaataa fi xëy ne damay xëy war a def nangam ca magasin ba këy rek suba teel téléphone bi sonné ñu ne la sa diw deena ku la jege sa programme yàqu te bi ngay tëdd tëddaale woo woon loola wala diw feebar na nangam ak nangam kon kenn ku ne lii sa programme mu ëllëg su la neexee tëral ko ba bindu ko waaye na muy doxee ëllëg yàlla rek koo xam man ngaa tëral rek xëy yàlla xëy yàlla màbbu loola lépp kon nag moo tax mu ne moo xam maada bu lan lay fàggu xaddan ëllëg wa ma tadri xamut nafsun bakkan bi ay ardin bu mu ci suuf tamutu lay deexee sañ ngaa wax ne man senegal laa juddoo waaye mënoo wax ne ci lay deexee man ngaa dem am foo liggéey dee fa man ngaa dem am foo tukki dee fa man ngaa dem leneen ak leneen tamit dee ci ndox mi wala nga dee ci safara si wala nga dee ci leneen ak leneen kon nit ku ne fu muy deexee yàllaa ko xam inna allaha naka nag alimun mooy aji xam lépp xabirun mooy ki dañ kumpa ci lépp dara dara dara maanaam na nëbbuwut ci moom su ko defee kon nag yàlla mi xam lii bu ko defee nañ góorgóorlu ci topp ko def ndigleem yi bu ko defee góorgóorlu tamit bàyyi ay tereem yi su ëllëgee lam ñu dëxal yëpp ñi mën koo jot li nga xam ne moom la ñu tëkku lépp tamit ñi mën cee ci ku bëgg a jot ci liñ la digal ci liñ la dëxal da ngaa war a def liñ la digal waaye ko fi bàyyi liñ la digal doo mën a jot ci liñ la dëxal kon loolu lu jar xel la mi ngi mel ni kon saar wi foofu lay jeexee tombeeg tamit tabaarakallaahu émission bi di jeexee fii lépp luñ wax ci saar wi ci njuumte yàlla nañu ko yàlla xamal ñu ci xam yàlla nañu yàlla may ñi mën koo jëfee te yàlla nañu ko yàlla nangul ci ni mu toll bañ ñu koo nangulee ñun ci ñun toll moo xam ñun ñu xeebu ñu koy wax te réer lool ak ñuñ koy wax ak ñu ñuy déglu fu ñu mun di nekk ci àdduna bi euh, ak ñi nga xam ne tamit ñu ngi ñu ngi fi ñu koy waxee fii ci Walfadjri ak personel bi nga xam ne ñoo jàppale borom kër gi yëpp yàlla bool defal ñu yiw ñu ngi sant nag tey suñu day fu saraf bi